te ki juróom-ñaari mbaam sëf la ren di jéggi. ndax lan alali àdduna. dëgg la groupe la woon da doon agressé di sàcc di fàqat di def lu nekk di. fóonante rek la yam amul leneen. mais fóonante dafa garaaw. bu garaawee nag ngir ñi ngi miñ dong la. bëgg siiw du dem bàmmeel. ku may digal lu baax ma def la sama noon weddi li ma doon fa ma jóge woon. gas def ci kàmb la ma bàyyi be woon léegi maa ngi nii xaw ma fu ma nekk nii dafa mel ni dama lan la bonsoir chez vous Soyez les bienvenus chez nous, chers amis et internautes. Soyez les bienvenus. C'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Solution TV et Walf TV La Voix des Sans Voix amati bégte ñëwaat ak yéen ci jotaay bi ñu baaxoo di def comme tous les à partir de jàpp minuit di jommet émission bi nga xam ne naa leen yéen a ko bëgg a seen bopp tey nag dañ koy daal di doore ak euh, euh, suñu sujet d'actualité bu ñu fa jógee ñëw ci Assane mu ñëw ci fait Eh, oustaz Talla Suus ñu ñëw li nga xam moom moo di masala tedd ma doon woon gas def ci kàmb ma bàyyi be woon léegi maa ngi nii xaw ma fu ma nekk nii dafa mel ni dama reer xaw ma lii lan la nii mu ngi noonu eh, Assane nuyu nañ la maa ngi lay fay Didi di am mbégte contentement ci présentation bu rëy bi ngay présenté émission bu mag bii nga xamante nii moom la Sénégal yi daw wutali muy am fii si rajo télévision Walfadjri di leen ndokkeel bu baax a baax waaye di ndokkeel waa solution TV ñi nga xam ne ñu ngi si commentaire yi yëpp di ndokkeel euh, oustaz Talasus di ko ñaanal jàmm di ko wax ni ko Sénégal yi kontaan nañ ci moom di ndokkeel baax doyen Modou juuf di ko ñaanal jàmm waaye ajaratu Bambi euh, maam Bambi maa ngi koy nuyu di kontaan lool ci moom. Euh, di kontaan lool si ñi amee initiative bi di El Hadj Sa Ndiogou Mbengue ak Sohibou Diop ay kilifa kër gi. Euh, di ndokkeel bu baax a baax topp Abdou Top mi nga xamante ni mi ngi si mooy tax ñu man ñoo gis gisinu yànji wu rafet bi ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla gën a yokk ay xéewalam mhm. waaye duma ma fàtte mukkit euh, ajaratu moomi kebe di sama yaay ju baax a baax maa ngi koy siyaare di ko ñaanal di siyaare sëriñ Abdou Samat ak sëriñ Moussa Nawel waaye di siyaare bu baax a baax soxna Aïda Diallo ñu ngi koy nuyu bu baax a baax tey di ko ñaanal suñu borom defal ko ndam ndax it wax dëgg yàlla jàmbaar la joo xamante ni mi ngi jiite ay nit nit ñi moom la ñuy diglu te it mi ngi leen di dimbali bu baax a baax a baax a kon soxna Aida Diallo ñu ngi koy siyaare bu baax a baax. Mhm. te di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm. Mhm. Aida Diallo. maa ngi koy siyaare bu baax a baax kooku nee naa la dafa yeewal. tabe te mën a joxe tubaab fa kàlla macha allah boo demee fa li nga xam ne mooy méditatu salaam da ngay gis ni muy berdee mhm. amul benn jour bu muy kii nag bu muy tëbal surtout àjjuma yi nga xam ne day taal ay mbana tubaab fa kàlla macha allah ñu ngi koy jaajëfal baax baax. bam bi mi ci tagal bi nuyu nañ la. <laughs> maa ngi lay fay di di sama rakk xol ji di wax auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim amaat mbégte gu rëy rëy ci émission bu mag bi léegi di jommet ni naa du ma tàyyi di la ko wax euh, la répétition est pédagogique fii ku jommul ku ne doo fi toog ndax kuy waare ku ne war gaynde euh, doo bëri sataankat te mën a ñëw na neex borom piis ndax ku njëkk yow borom jékki da ngay tëddaat mm-hmm. noonu laa lay nuyoo du nuy sëñ Moodu Oustaz dañ la fàtte benn xool sama xarit xol bi Assane le beau gentleman Assane tey da nga bandi def say lunette ci guddi gii takk say cuus kase sama xarit. daa war nag. waa tey waa dafa ceeb dafa war la mais amul problème ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñi seetaan ci biir réew ak ci biti réew itam ah di leen jox sama yaay booy Badiane Sakro Waly di wax dundal wéral loo gën a yàgg muy gën a neex loo gën a dund muy a neex di nuyu sama rakk yëpp di nuyu parcelle ga ma yeewoo di nuyu ma Anta baax yaay ko affaire sàll ngaari lam bu di gédee borom fukki xayma ak juróom-ñaar ki nga xamante ne naa ko bu sàllandikoo piste ko odd moo jaar ci maquillage yi moom maam jaara borom porox caaxaan ah daal di may sorsotoo ba ma neex a xool ma jongo ma di nuyu ñëpp di nuyu xarindooy aussi ci sa sponsor yi la ci HLM 3 boulangerie Baye ci kanam ñu daal di saaji rëtëmbal defati lu am solo en tout cas tagal macha allah. dëgg la sama yaa ngi jongo ma <laughs> oustaz nuyu neen la Souleymane Diaw. Euh, alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa nabiyina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama soxna Didi ñu ngi lay fay di la ziyaara bu baax a baax a baax di di suñu nuyu ak suñu ziyaara di ziyaar baax sëriñ Babacar Sy Mansour xalif général de Tidiane ñuy baax sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké xalif général de Mouride tabaarakallaa ñu nuyu sëñ Sidi Moussa Abdoulaye Mbacké ak mboolem xulafaaw yi ci réew mi bawuñu kenn Cheikh na Cheikh na am ay dara xalifa Cheikh na Cheikh Abdoul Aziz xalifa Cheikh na Cheikh Sadbu tabaarakallaahu ak mbooleem rek xulafaaw yi ulamaaw yi aima yi bawuñu kenn ñu ngi leen di jàmm yàlla ak yërmandeem xéewalam ak barkeem yàlla yàlla defal ci barke weeru tedd bi nga xam ni mooy weeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw loolu rek ñu ñëw Seydina Assane Baye Mesre nga xam ni moom mi ngi noonu rek sama waa ji mu ngi noonu daal ci moom mu ngi noonu rek Baye Assane moom nañ ko bàyyi waay la Adja fay gàmmu Tiwaawan Tiwaawan bu jógee dem Kaolack waati Tuuba <laughs> Tiwaawan laay gàmmu Tiwaawan laay gàmmu Adja kenn du la fàtte macha allah mais man du ma nuyu monsieur Kébé laay nuyu maa ngi koy ziyaara bu baax a baax a baax tabarkàlla Modou Mouhamed Lamine ñi ngi koy nuyu di ko ziyaar moom tam ziyaar ñëpp rek Adja Dili macha allah jàmm yàgg macha allah euh, bi sellatina euh, alaaji Modou ñu lay nuyu baax di di waaw maa ngi lay fay di la wax rouge bi baax na tey moom yow Bambi moom fi ngeen génn moom xanaa ne ci weeru yonent bi ngeen nekk waaw gis nga di leen nuyu di nuyu oustaz bu baax a baax di nuyu waaw weeru yonent bi weeru taar la taar la taar la weer yéen di weeru taar la nuyu Baye Assane gis nga tey yow li nga def sax da ngaa soppeeku tey ci ah. bés bi ah, di nuyu téléspectateurs yi ñu seetaan di ndokkale jullit yëpp ci gàmmu gi xanaa ma wax lii sama sëriñ waxoon rek ci bu weer bi teroo muy xani ani ibrahima laaha xilaaluhu xilaalun bada lin naziri la jamaaluhu xilaalun rabbi in fii jaa muhammadun jaa muhammad wallaay Cheikh Ibrahima wax nekk ci weeru ngëneel nekk ci weeru mbégte hmm. ma ci ndokkale jullit yëpp ndax euh, tuuti rek laa ciy brosé Sénégal dafa dafa raw ci diine. Mm-hmm. ndax bi suñu maam Seydi Hadji Malick ak Maala Jaabel si gàmm boobu gàmb dañuy wax ne bidaa la ñëpp naan gàmb bidaa la dëgg la tey àdduna bi ñëppay gàmb ba ca màkkatal mu karam kon suñu mag ñi ñu baax lañ ñu jaru wóolu lañu fu ñu teg seen tàng xam nañ ko maa ngi ndokkal mboolem julli ci weer bi ñu nekk di ñaan yàlla def nañu ci tawféex digi xam naa ne tey moom taaral ngeen mbir mi waaw tamit fi nga laaloon neex na tuuti boo boo continué woon tuuti rek ma daal daanu leer <laughs> heureusement bi nga arrêté ñu daal actualité la baam Bambi naka nga gisee kii bi. waaw Boun Abdallah de bañ ko fi waxee ne ko yow Macky Sall fu mu la xooloo ngay xool lu mu la wax loo ngay def dafa mhm. nangu woon ne wax ñu ne ko yaay benn bouton mu ne wax ma la benn bouton waaye maay ñaaram tey nag li ñu doon wax rek ku sañu ta bañ sangañu nangu ndax ku boot bukki xaj baw la sëriñ baa ko waxoon. dëgg la. ah ñi bokk teen nit ñooy laxasoo goñ waaye man ba léegi dama naan lépp rek lobby la man gëwuma benn man gëwuma benn ku nekk parti au pouvoir nga postulé ne candidat nga très sincèrement. gëw ma ko man Senghor sama sama gis-gis la quoi tamit gëw ma ko. <laughs> Eh. parce que euh, Macky Sall moo nekk kenn koo xam ne catuma ko macha allah doomi jàmbur la dafa muus. Ah. am technique politique. bandi ci politique am expérience ci politique. lu ko neexul du am lu ko neex mooy am. te kum dogal tuba it ngemb laa ngi lay xaar. ndax mm-hmm. Macky Sall damay wax naan moom xamul liir bu juddu bees. xamul liir bu fer liir bu juddu bees la xam wax la nag dégg laa liir bu fer liir bu juddu bees la te kum dogal tuba it ngemb ngi lay xaar. ku mu bëgg a galgalit ala kuli aali munoo fexe fexe fexe ba doo dugg ci ruq mën a kanam def yëfam mm-hmm. donc man yooyu yëpp lobby laa ko jàppee gëwma ko parce que moo tax na Amadou Ba imposé ko ay nitam ne leen kii laa bëgg ngeen àndal kii moo fi war a nekk ba pare bëgg a def benn pneu secours def benn je retiens parce que certes moom moo la gën a xam ne ñëpp mënuñoo ne waaw Amadou Ba ñëpp mënuñoo ne tamit déedéet am nañu ay ministres yoo xam ne ba tañ waxaguñ ay Matar Ba ay Mame Mbaye Niang et tant am na ñoo xam ne ba léegi waxuñ ne kii la ñuy àndal wala kaa la ñuy àndal wala dañuy ànd ñoom ñëpp nag mënuñoo nekk président mhm. ñoom ñëpp aussi mënuñoo nekk candidat déjà ñoom seen biir ñu ngi dëmmante di lekkante muy salte ku jigi mel ni jàmm ñuy defante lu ñaaw di ko waxante mën na ñàkk parce ñoom la woon ba muy neex ñoom la woon kon bu mu naqari tey ñuy ñuy gajjantee na rafet buñ di ci conseillé bi rikk waaye conseil bu ma leen jox la àndoo leen booloo leen nekk leen benn xàccandoo dóorandoo yëkkatindoo ndax union fait la force parce que fee mi ngi ñaaw te bu leen nangu yéen tamit mu ñaaw ndax chaise bi moom ak caq bi non benn nit rek ko koy taq donc na rafet tamit na na gën a rafet <laughs> Assane Mesere naka nga gisee li nga xam ne moom moo di hmm? <coughs> d'accord wax naa rafetlu ko rek ci conseil bam bi boobu laay commencé sax di wax ni opposition bi na ku nekk def ni Malick Gakou dem wutali boppam <laughs> euh, fas yéene samp ndëndam bu bu ko askan wi doyee ñu daal di koy laaj gis nga élection présidentielle amul ay coalition da ngeen di dem laaj ni man ngeen man laa bëgg ngeen dénk ma réew mi waaye fekkee ni tey jii am na ñoo xam ne doo leen doy am na ñoo xam ne oustaz leen doy am na ñoo xam maam Bambey leen doy am na ñoo xam maa leen doy ñun ñoo ñu booloo daal ne dañuy raaj réew mi su boobaa réew mi guuta gu raw gii mu nekk rek lay dugg. Mm-hmm. na kenn ku nekk dem campagne yi te ñu bàyyi seen caaxaani ay coalition yooyu ñuy def. Mm-hmm. bu ñu ba deuxième tour ñu doog a def ay coalition kon yi na tas Euh, bi nga bu dee président Macky Sall nag moom lim def ñi mu àndal man dama koy rafetlu ndax it wane na ne démocratie am na si parti bi neen leen kii laa tànn moom laa teg ngeen dem ànd ak moom am ñu ne ko kii nga tànn doyuñu ñun ñun dañuy bokk mun leen mi ngi noonu léegi nag nañ dem ba àgg sa cëppaandaw ga ba xam ñii naan dañuy bokk danañ bokk wala duñ bokk. Mm-hmm. te it man am naa si it ni eh, ñii ni wax xam ne dañuy bokk bu dee président Macky Sall bokk gi neex na ko kon parrainage dinañ ko dindi ren du bokk parrainage du am ndax xam na ni ñii duñu am parrainage. mënuñu ko am ñii mu tànn ñëpp kenn mënu si am parrainage kon nag bu fekkee ni ñii président Macky Sall da am ñu mu siy lool parrainage bi dañ koy dindi pour ko defee ñii mën a bokk si élection yi ndax dañ am lu ñu joxe moom caution dañ koy am moom loolu daal laa si xalaatoon Didi. macha allah euh, analyse pertinente oustaz. Didi mi ci trois yi. <laughs> moom stratégie moom yàgg na ci sénégalais. Mhm. teg dara. Euh, le président de la république Macky Sall moo leen jaboote woon ñoom ñëpp ku ci nekk yaakaar naa euh, takkal na la ndombay tànk njort naa ni amu ci kenn rek ci ñoom koo xam ne mën nga koo joxoon ci côté boobu mm-hmm. lañ doon ànd doon liggéey te ñoom ñii nga fi dégg ñëpp ñu dañuy présenté wu Bambi mm-hmm. ñoom ñëpp mag sampal na leen ndombay tànk bu tax ñu mën a tedd léegi mu des ci élection yi nga xam ne sénégalais yi ñoo ko moom ñoo war a tànn ki leen doy ma li ma gis mooy Modou man sax du dama koy wax man politique yi gëwuma leen surtout politique u Sénégal gëwuma leen yow kii euh, Baye Assane mhm. gëwuma leen gi benn sens la beneen sens bi di leen gëm gëm gi mooy lan amuñu pexe ci ñun ni ñu bëggee suñu réew mu doxee ko par force dañuy diriger ci ñoom nañu bëggee wala li nga wax bambi sa am solo mooy ñun jusqu'à preuve du contraire wóoluwuma leen baat la boo xam ni samp la ndënd la bu ñu samp wóoluma leen mooy jàpp naa ni tôt ou tard li Baye Assane wax bu ñu demee deuxième tour gars yi pay ànd bàyyil xel comme xam nañu ni élection nag jamono ji ñu tollu Sénégal gañe ko premier tour yombul Sénégal gañe fi élection premier tour dañuy wax ne est-ce que sax mën na ne la ñuy wax Idriss hmm? sama dëkkandoo sama dëkkandoo Idriss sama dëkkandoo di sa yax naa leen fi ba taay ne leen kenn daax koo politique ci Sénégal xam nga wax naa leen ko fii ba taay ñi ma fi gis nii kenn tenewu ko ci nag ah. kenn daax koo politique moom loolu moom xam naa war nañ ko mën a nangu ah mais damay wax ni nii nga xam ni moom nga wax sànq hmm. waaye nit ñi dañ ko càpp la rek bambi càpp la rek ku ci nekk ñoom am nga loo yaakaar te dañuy taqale ñii dañu am dix ñii am dix ñii am dix ñii am dix hmm. su ñu demee deuxième tour bambi hmm. force par la force di nga fa gis déggoo di nga ñu doon merente mm-hmm. di saagante ah. di xuppante mm-hmm. di nappante mm-hmm. nga séenaat leen ñu lonkoo kon li ñuy ñaan ñun sénégalais yi yàlla nañu yàlla indil koo xam ni moo mën a yor Sénégal te mu jig Sénégal man waaw nekk ci xolu sénégalais yi ba pare bam bi jig Sénégal lu ci am solo ngoo waaw jig Sénégal ku mën a falu baax na les politiques mënuñu ci dara système bi ñu wax mun ñu ci dara waaye ku mën a falu baax na mais yàlla na nga jig Sénégal. macha allah oustaz Alaaji Modou après Aly Ngouille Ndiaye eh, Mame Boye Diao tey ñu dégg nga xam moom moo di Boun Abdallah Dionne pare na pour samp ndëndam ci élection yi nga xam moo di présidentielle 2024 tey naka nga gisee loolu noo ko jàngatee. waaw <coughs> Didi tout d'abord lu jaadu la lu jaadu la sénégalais bu nekk matal condition yi nga ne candidat nga. Mhm. Boun Dionne jiite na fi lu nekk. ñuy fàttali ne élection législative 2017 moom moo nekkoon moo jiite woon benn Benno Bokk Yaakaar ñu amoon cent vingt députés quelque chose comme ça kon bu laajee sañ na ko. Euh, léegi nag candidat Macky Sall la wala du candidat Macky Sall la jàngat bi foofu mun na ute ndaxte man li ma gëm mooy Amadou Ba du choix Macky Sall man loolu laa gëm choix bu ñu ko imposé la wala choix bu fi ses la mm-hmm. ndaxte. moom Macky Sall il faut nit ñi xam leen Macky Sall moom li mu jàpp wala ak ñi mu àndal parti li ñu jàpp moom maanaam moom mooy capaacool yi kenn du moom maanaam Macky capacité yi mu am moom boo leen dégloo nga naan kenn amu ko fa moo tax moom ci discours am bu mujj sax bi mu demee Amérique am na fu muy wax ñu koy jottali mu ne Amadou Ba mooy ñi bëggoon nekk mooy ki ci tane moo na wax ne ki ci gën la mu doon wax ne Amadou Ba moom a dàq liggéey ndax indi espoir andi yaakaar waaye bu ne moo ci tane mooy c'est-à-dire que Amadou Ba moom ba léegi moom tollul sax fi Macky Sall te Sénégal jafe-jafe yu mu nekk nii ñu dénk ko Macky Sall ak jafe-jafe yu ñuy dund kon moom bu ñu andilee ku tane kon ñun fan lañ jëm loolu c'est problème. moo tax moom Macky Sall. ma pare nga doo defee ni da nga may dagg problème boo defee ni da nga may dagg après damay ah, perdre li mu mais buñ nee ñi ñëpp kii si gën li ngay wax d'accord d'accord ci dara waaye dama laa bàyyi ba jeexal ko ndax damay bañ dagg sa fil <laughs> yaa ngi wax parrainage benno bu ko neexee mu génne cinq candidats ñëpp am parrainage hmm. parrainage dafa soppeeku treize députés dañuy parrainer léegi candidat hmm. benno quatre-vingt-deux députés la yore xaaral ba ma pare mën nañu am cinq candidats Assane da ngay yàq sama élan. <laughs> Assane bàyyi ko pour pour bu xam nga Assane day sax day ruube quoi. da <laughs> day ruube rek Oustaz dafa am dafa am solo fa laa jëm si. c'est que ba mu bàyyi rek dinaa ñëw ba ak si temps bi guddul Assane. dama bëgg a wax ne la bu leen neexee ñu am candidat autant de candidats qu'il qu'il parce que léegi treize députés mën na la parrainer nga am nga nekk candidat au lieu ngay wuti zéro virgule sept wala zéro virgule pour cent électorat bi. Hmm. Benno am na quatre-vingt-deux quatre-vingt-deux députés boo fa génnee treize treize treize treize mun nga fa am cinq candidats ba mu tësagut ba mu bennoo tas na de waxaar rek gis nga bennoo dañ bennoo Khalifa Sall sa la woon déedéet Khalifa Sall mosul mu ko moom waaw génn ko ñooñu génn président Macky bennoo mu nekk cotisation ay nit gis nga Boun Abdallah am na fa Amadou Ba am na fa luñ fa am Abdoulaye Daouda am na fa ay député yi ku nekk am nga ci ku ci nekk am nga ci xaaral ma Assane Assane may ko rek mais nañ ko mën a amee foofu ay député député benn ñoom nuñ si man a am ñoom ñu génn Assane baal ba ma ba pare ah, benno bu ko neexee tey mu lancé cinq candidats diti ku nekk mu na la moom mooy xool stratégie bu mu koy defee ndax xam nga fu mu la fa lay amee solo mooy li oustaz wax léegi Sénégal découpage dafa yaatu dëkk yi am ay réalité est-ce que Amadou Ba bu nekkee candidat waa Bawol dinañ ko voté une question bu ñuy war a poser la Boun mun na am électorat Bawol ndax moom mi ngi dëkk Gossas mhm. sama wetu dëkk. waaw nekk taalibe ci ah, kon yow affaire bi ko bëgg a def léegi. affaire taalibe waaw defal Sénégal dafa am ay réalité. xam nga taalibe rek. a def. ci la bokk affaire dëkkandoo. Assane ci la bokk. loolu dafay war a jógee. waaw bu bu jotee rek Sénégal yi dinañ ko dindi. dama ne mën nañ tey fa ay stratégie. Mhm. tey jii Macky Sall bu ko leeree ne Amadou Ba mënul gagné Ziguinchor. Mhm. dafay wut candidat Ziguinchor ndax du ko def ci élection local yi ñu gis ko élection local yi Macky Sall dafa tànn euh, Benoît sàmb ak euh, le gars Sané Seydou Sané bu Casa Sport kii jiite département kii jiite commune ñu dem ba ñu def ay sondage ñu gis ne Ousmane Sonko da leen di gagné mu ne Doudou Ka demal jàppale Ablaye Balde loolu loolu politique la mënoon na ne Doudou Ka jàppaleel Benoît Samb parce que Benoît Samb la tabb mhm. mais dafa ne Doudou Ka demal jàppale Ablaye Balde Mame Boye Diao bi mu bëggee nekk maire bi muy nekk maire Kolda boobu Kolda dañoo xam ne dañu fa am jafe-jafe et bu ñu bu ñu Ablaye Bibi bi ñu tànnoon bu nekkoon dafa dem oppose wala yaay yéwi mun nañ ko jël mu ne Mame Boye nekkal candidat Mame Boye ñëw jël maire bi loolu ay stratégie politique la mhm. dafay rejoindre Roussazo léegi nag loolu bu ñu demee deuxième tour nañu attend nañu xaar ñoom ñëpp ñu dajoowaat ndax ñoom ñoo bokk ci teen bu ñuy naanee ñoom ñooy bokk ci teen bu ñuy naanee léegi nag li di li li Bambi wax am solo tamit lu wax naa opposition bi dañu booloo. gis nga Bougane xam na ne mënul gagné réew. buñ na waaw waaw waaw xam a mën a gagné réew gis nga demaguñu ñu waxante dëgg rek demaguñu euh, euh, nga Assane nit bi mënta ñu dégg dañuy dem wuti électoralement laay ne ñu ngi fi ci jommet yàlla ñu fekkee ak tal ba ci élection passée Bougane Malick Gakou kenn du ci am 1 pour cent xam nga lan la. Assane non non bul tànn ñooñu doon. àggale Amadou Ba Amadou Ba bëri na mais Amadou Ba Amadou Ba nag. Ah, ba nag ku nekk eh, mën na cee a d'accord ñii c'est d'accord d'accord élection présidentielle la ñuy wax. waaw mhm. Kaolack laa dëkk. Mhm. man Kaolack laa de xam réalité bi gis nga boo ñëwee Kaolack mhm. nga ne Bougane Gueye Dany ci télé ko xam wala journaliste xamuñu ko mhm. da nga xam nga defal nànk rek defal nànk rek nga ne Malick Gakou mënuñu mhm. fa am juróomi nit c'est dama lay wax réalité damay li Bambi di wax laay laay conforté ñuy dem de manière dispersée di perte nañu booloo ci la ñuy amee chance pour ñëw. opposition bi booloo gi moo mënta nekk gis nga loolu noonu. kan wax la benn affaire booloo gi mënta Malick Gakou meex imaginel ma ngay wër dëkk mu topp ci ginnaaw diw nga na la xam nga na la xam nga dama laa wax euh, hmm. na am parrainage citoyen ba jàll ma bëggaan koy daan seet kenn ku ci nekk libre na pour wax sa xalaat mais man je ne pas d' accord nga ne diw am 1 pour cent parce que moo nekk loo xam ne ah, xaaral ma wax la s'il vous dafa sew alalu jinne la mhm. parce que à moment borom sunataala mun na indi mun na indi mun na indi kiraam Pape Djibril Fall bu nekk honorable député kenn xalaatu ko te danoon analyser analyse pertinente man ku ma naw la xaaral ma wax la rek s'il te man ku ma naw la dama ko doon seetaan man bu ma taxawoon Sénégal il fait partie des cadres mënuñ ko génne ci cadre tey borom suna taalaay jàppale ba nekk tey député hmm. am na ñu wax naan kii mënu koo nekk mënu ta dem fu muy jaar xaaral s'il vous plaît donc man je suis pas d'accord désolé li mu wax sax mën naa ko démonter waaw léegi man a suis désolé je suis désolé Modou je suis désolé je suis désolé pour nga ne jiw du am tam non question Malick Gakou bu may jox dara Ba nga doon def ci Sonko nga ànd que Amadou Ba mooy candidat parce que nee na Amadou Ba. Amadou Ba Amadou Ba am dara yow Malick Gakou la wax de. kon du sama candidat kon du candidat am de du loolu du loolu. Ah, Amadou Ba siwul il fait milliardaire du pays. Eh. milliardaire la il a de l'argent. mais siw na kon toj na fenn Bambi mais ah, Bambi Amadou Ba il a fait vingt ans plus de vingt ans ci service d'État. xam nga mooy chance Amadou Ba. Amadou Ba nekk na fi nekk na fi mënut am benn chance. xam nga mooy chance Amadou Ba Didi ah. Didi. mais Amadou Ba nekk na fi impôt domaine ñëw nekk directeur bu nekk premier ministre. nekk finance nekk ministre daaneel temps bi mu dem xamul tax Amadou Ba am ay chance xamul ah, tax Amadou Ba am ay chance. Amadou Ba amul Amadou Ba amul adam Amadou Ba coefficient personnel am bariwut. mais dafa nekk tourné ci réew mi ñu koy carné ko doo dem. sur le menu dafa ma dafa naan candidat pouvoir maanaam ki nga xam ne mouvance bi seen candidat minimum day am 40 pour cent ndax boo xoolee administration ñi ciy liggéey ñi aju ci intérêt famille ñu noonu dañuy bëgg a préserver seen i mhm. ñoo ñu noonu dañuy nekk quarante pour cent. boo xoolee moo tax Ablaye Wade bi muy daanu ko Abdou Diouf bi ñuy daan ñëpp foofu la ñuy yem si leen moom waxoon lu mu ne administration boo ko yoree nekk candidat da am 40 pour cent minimum macha allah Amadou xam ma am lu ma lay leeral 30 secondes dama lay yokkal ci opposition yi ci Sénégal lépp xam certes man du ma bërki dem du ma bërkaat dem tey la opposition yi ci Sénégal yëpp ñaar laa mën a tegal waatal leen man Senghor ci kaamel ñoo fi gën a set loxo luubaluñ muy Malick Gakou ak Ousmane Sonko. <laughs> Malick Gakou ak Ousmane Sonko zéro faute ñaari leader waaw waaw parce que ñooñu. léegi léegi léegi léegi gis-gisam la kenn mënu si dara. dañ jàll ci li nga xam ne moom moo di. diw li nga xam moom bi nga xam ne euh, suñu président Macky Sall daal di ko def fële ca RFI ba mi mu nekk loo xam ne alaaj alaaji Modou lu neex la nag ñu ngi ci ñëw Assane. <laughs> déclaration bu kan si président. waaw mi nga xam def na ko RFI. umpale woon ne Macky Sall dem na fi nga xam moo New York. Mhm. pour lim déclaré ni Amadou Ba moo ko doy. actualité waaw loolu président Macky Sall mooy njiitum réew mi bu àggee tubaab yi dénk euh, jox ko kàddu day waxtaan ak ñoom rek si am tolluwaayu réewam waaw tolluwaayum réewam wax na si wax na si parti bu Pastef lu tax mu tas. wax na ci Ousmane Sonko mi nga xamante ni téye nañ ko wax na si yeneen ak yeneen léegi nag ñi nga xamante ni ñoo ko dégg ñam doon waxal xaj na dinañ ko diglu bu baax xaj na dinañ xam li tax muy wax waaye daal na sóoraale ni moom lii mooy am réewam ñun ñi la gën a wan a waxal ndax ñun ñooy fal ñooy folli. Mhm. Mhm. macha allah Bambi. waaw man de li ma gën a métti rek mooy bi ñu ko posé question lan moo tax mu dissoudre parti Pastef daf ne Pastef dafa nekk ñoo xam ne ku yee fitna la kuy koo xam ne fexeem ak liddante lépp mooy pour daaneel nguur maanaam daaneel état am ay link yu doy waar yoo xam ne ñu ngi koy fexe ak di ko créer toujours ñu ngi créer ay ay ay ay trouble à l'ordre public genre moom loolu la wax nee na loolu moo tax mu tas Pastef man de sama xalaat laa wax son excellence monsieur le président man de je suis man gisuma loolu ku deeg sa bàmmeel ah, nous sommes tous des citoyens nous sommes sénégale sénégalais jógewu ma Guinée ñëw paasuma bu ma juddoo ba léegi fi laa juddoo yaroo fi màggee ku ma gis ak samay 32 daa nga xam ne Kaolack laa juddoo Fatick maag moom a ko bokk sorewuñ kër tubaarkàlla muy sama xaritoon nag lool donte nekkatul sama xarit donc loolu moom mu wax moom xam nga moom Macky Sall léegi nag loolu mu wax moom moom la engagé parce que nit ku nekk boo defee dara da tubaab lool la xam da ngay indi ko sur la tey Modou mii boo dafa maa jëlal dinañ na lan la la jëlal ak kan moo seede ak lan la la jëlal génne wan ko donc comme yow te tas nga parti jàmbur da nga indi ay justification xëy na loolu xelam la bu yaakaare mun na convaincre askan bi à ce que loolu moo tax mu tas parti jàmbur loolu moom la engagé mais tamit li may conseillé Sonko ak ñi nekk ci biti nañ def ay recours def ay appel genre parce fii certes def na recours ñu xaar résultat yi xaar fan la waaye bu jënt gëtam ñu bañ ko def ku ma am ndey ak ku ma ndey xam nga parce que tey Sénégal lu mun munta atte tamit CEDEAO ngi fi ñeneen a ngi fi ñeneen a ngi fi balaa ñuy wàlli wàlli dem yeneen dëkk ñu ñuy jugé ak di ñu atte rikk waaye suñu juge réew mi suñu suñu suñu suñu askan wii mhm. nañ leen ñun nañ leen doyloo yéen tamit ngeen yaatal tëddee njaxanaay na xam ne ko atte fi di nga atte waat fële nañu def suñu digganteeg yàlla rek yàlla rek a fi nekk euh, euh, euh, sa wujj di sànq doo set sa doo set lenn mënta ne. il faut ñu comprendre ko euh, Moodu Macky Sall mënul dem génn di def déclaration di faral Pastef loolu xel waru koo nangu sax li muy def mën a def mooy wane boppam moom wane pouvoir am fi mu toll wane dooleem fi mu toll bu génnee Macky li muy def mooy wane liggéeyam mais am na ku wax dafa naa bàyyi san mooy wax balaa ngay génn di wane sa njàmbaar ci biti mën nga ko wane sa réew communiqué ak sa réew waxtaan ak sa réew te loolu foofu président toll na fa nag jamono ju ñu toll communiquer ak réewam waxtaan ak réewam ba am terrain d'entente ak ñoom su fekkente ne nag dafa génn def déclaration boo xamante ni ci biti la ailleurs def ko ngir parce que bu la ci kenn ndax ak lu mu mën a wax moodu jàppal ni lu yëkkati personnalité am ak lu yëkkati profil am loolu lay wax bu doon yow la noonu ngay def moodu bu doon man la nit du xas boppam il faut ñu comprendre loolu nit du xas boppam sa foo mën a demit bu ñu la laajee da ngay tagg sa bopp da ngay wane say maam waaw nit du nit du xas boppam bul sonn bul sonn euh, Baye Assane mënul dem foofu di fa di fa di wut benn parti naan parti bi moo baax ñoo def nii moo def laa soo seetee bu fekkente ci wàllu passé trouble à l'ordre public boo seetee liñ leen liñ leen gën a adressé tey li leen gën a daaneel baat boobu la benn mot trouble à l'ordre public mm-hmm. boo seetee passif li leen moo boobu la. boo demee ci côté justice loolu lañ leen foofu foofu lañ leen dugal indi fa problème yoo xamante kenn xamul fu mu tàmbalee ndax problème la boo xamante nit ñi mun ñu koo comprendre lu dul élection daa jeex président bees ñëw. Mhm. ci la door a comprendre le problème des Adji Sarr problème des détails yi fi amoon Sonko l'autre ministre beneen bi Mbaye Niang keneen ak keneen ak keneen ak keneen. Mhm. moo daal xam lu ci am solo. mooy ak lu mën a réewam waa réew di xam bu génnee fu mu wax dañuy xam ne lii fii la ko njëkk woon ci Sénégal loolu rek na nga gisee kàddu yi nga xam ne euh, président yëkkati na ko foofu. waaw waxul waa réew mi Macky Sall waa Sénégal ndax bu doon wax waa Sénégal am na yeneen canaux yoo xam ne ci lay waxee. Mhm. dama ànd ak ab Ablaye Wade New York je pense 2009 bi mu bëggee wax waa Sénégal ñun ñoo ñun la waxal ñun waa Walfadjri ak waa Canal Info. mooy bi muy mooy bi muy bi ñuy waajal élection 2012 yi te moom dafa waxoon ne du bokk bi ñu demee foofu foofu la waxee ne day bokk te bi mu bëggee waxee waa réew mi boobu waa réew mi lay waxal wax wolof mu ne day mu ne mu ne seuls les imbéciles ne changent pas. Mhm. kon li mu waxoon ne du bokk moom mun naa changer ndax moom jàppul ne boppam ci yooyu la bokk. maanaam Macky Sall waxlu ak waa réew mi xam nga bam bi dina ci ñëw xëñ ne ci kujjee Macky Sall dafa dund lu metti foofa il fallait que mu ak tubaab bi il mu wax ak tubaab bi. ndax communication dafa am ay ay ay kii yu bari yaakaar naa bu bëggoon wax ak euh, waa réew mi dafay ànd ak presse bu mel ni Walfadjri wala 7TV wala TFM wala kenn bu demee ba foofu mu wax ñu ne kii waa réew mi lay waxal mais tubaab bi la wax léegi nag <coughs> interview chef d'État dafa am protocole dafa am question yoo xam ne dañ koy dindi. ci ci protocole bi am question xam ne ñoom dañ koy dugal pour communiquer ci. li mu wax na ci cadre Ousmane Sonko Pastef li Oustaz wax moo ci nekk loolu ci mën a wax ndax Macky Sall dañoo war a xam ne. moom mooy gardien de la constitution moom mooy défendre mooy clé de voûte des institutions comme koy waxee maanaam moom lu di justice def malgré bu ñu dañuy séparation du mënul ramer à contre de la justice. que mu nekk justice bu équitable que mu nekk justice bu nekk dëgg que mu nekk justice bu justice nekk leneen moom daf koy assumer léegi nag bi mu waxee loolu ba pare tijji na ay voix comme li comme li Bambi wax waa parce que def nañu ay recours te wax na ko ci biir interview bi. bi waa moom dissoudre na ko parce que am na ay raisons yi tax mu dissoudre ko raisons yi convaincre na ma wala convaincre ma convaincre ma man su ne ko sama xalaat laay wax. convaincre ma parce que euh, dama dégg Omar Gueye mu wax mu def analyse bu important importance jeudi ci kii am njàngatam mu ne MFDC. mouvement Casa Casase la boo xam ne dafay appuyer rébellion te MFDC mu ngi existe depuis Abdou Diouf te pourtant kenn mësu ko dissoudre que parti politique la. Macky Sall parti politique la yore maanaam par décence li nga xam ne maanaam honneur ak ngor ak homme d'état waru koon mooy muy dissoudre benn parti. ndax fii Sénégal parti bu ñu ko fi dissoudre mooy jamono bi nga xam ne ñu ñetti ñii bu ñu bëggee def réunion politique dañuy làqatu. jamono boobu la ñuy dissoudre parti te benn parti lañ ci dissoudre. cest dire que jamono bi ñu toll nii deux mille vingt trois deux mille vingt quatre un président de la république téye sa wujju te da ngay tas këram maanaam même boo ko tegee ci dëgg nit ñi mënuñ ko jàpp moom Macky Sall waroon def. bàyyi procès suñ ko continuer bu ko justice daanee ba pare justice jël décision ne moom mooy tas parti bi mais pas moom parce que lan lañ leen di reprocher parce que dañ fi def dañ mës a def manifestation mu débordé parce que bu leen joxoon manifestation bu ñu paree bu xëyee UCG du fa dem dañ koy bale ba mu set. dëgg la mais dañoo bari ci réew mi dafa rek parce que boo fa demoon seen manifestation réer fa sa téléphone na sa xel tey day feeñ. Assane Messere mii dem na fa di def def lu ay effort pour ñu sàcc téléphone bi kenn sàccu ko catal ko fu ne mu catal ko pour mu ñëw yekk leen lu mel ni xeme kenn sàccul téléphone ba. jërëjëf Maodo. xam nga kon mm. ngi ci social ñi ngi ci nàngam. Mm-hmm. soo fa jugee jaay ko doole di su dur ko kooku après yow ak sénégalais la mais loolu mënoo ci am ndam ko justifier sur le plan na loo xam ne nag bu bam bi ñëwee ci kujje gi. am naa fa leneen loo xam ne sama xalaat la dinaa ci. macha allah topp ànd ñu bàkk bi ànd ak Assane ci fait divers te del si waay dem naa ba man maay kan mënatuma dëpp xaw ma fi ma nekk mooy fan ay ci Assane doxalal waaw man mi nga doxal loo de wallaay tey ji ne doxal oustaz ñu ngi santar yàlla bu baax a baax dama lay damay ñëw rek si feede weer bi mooy ki nga xamante ni mooy eh, Kouthia nekkoon fee sa TFM ba mu fa bàyyi ko mi ngi doog a la tax mu bàyyi koo fa ndax dafa daan bàyyi koo di dem ak a dikk rek mais tey jii moom mel na ne du demaat euh, jóge na fa. bàyyi leen rajo ak tele dem fekki rajo kese nekk ak ñoom di rampe di xeex ci bataay bi ci pétition bi bañ yàlla may ñu ma jël drapeau bi daw ak moom ba TFM wër ak moom ci àdduna jaay ko àdduna bi yëpp jël sama yaram bii di ko peinture di ci daj ay lu bëri di am ay problème cancer de po lu ne mun a ma ci fekk ma jigéen jigéen lu sama diina nangul ma koy def rien pour xëcc audiment bi. tey waroon nañ ma sargal man waaye waru ma mértu woon ñu may dàq ci biti ku may xaar ci beneen seen pour may defante ak ñoom doo ma fa gis lu ndaw lii laay jël di ci rampe di ci rampe loolu nag ñoom loolu waykat bii li mu wax nga di ma liggéeyloo ba xëy na ma dàq naa la way bi tey man la dal mën nañu liggéeyloo ba xëy ne ma dàq nañ la yoruma jaasi menacé wu ma journaliste taaluma fa loo xam ne dafa egg cinquante million menacé ma nit ay kaddu yu ñuy te kàddu yu ba tey amuñu ay preuve ndax ci man la jóge ñu dem dàq ma pour protéger ñett wala ñeenti nit ñoo xam ne dañu bu Kouthia dellu si fii ñoom ñu bàyyi pour quelle raison pour quelle raison lan mooy loolu kon Sénégal dafa jot pour nit ñi ñu xam dëgg bi mooy man j'ai été pas resté chez moi pour bañ a dem liggéeyi dañ ma jërëjëf euh, Didi mi ngi noonu kon euh, oustaz Talla Souz dégg nga Kouthia li mu wax. nee dafa doon liggéey TFM bañ xëy ni ko dàq nañu la ak yim si expliqué yëpp noo ko gisee. Euh, tabaarakallaahu euh, euh, Assane dafa am ci biir wax ji lu ku caa wax mooy dem naa di liggéey bay jigéen jigéen lu. Ah, boobu moom def yëfi jigéen. def yëfi jigéen. Hmm. al mutarajjilaatun bi nisaay loolu baaxul. Hmm. góor dafa xaraam mutlaxan loolu moom dama ko koy wax rek boo lëggee moo xam nan lay def lislaam dana ko fa tëj waaw bu baax a baax parce que foofu lislaam bëggul loolu bëggul comportement boobu doon dale nag doon na ko def al mutarajjilaatun bi nisaa te pourtant ñi ngi ko doon seetaan mais ñëpp a ni pat pour wax la Sénégal li fi xew ah. ñëpp a ngi doon seetaan loolu te Kouthia di ko def ñu bari war koo woo kuy xaritam wala kuy lëm ci wàllu diine woo ko mhm. ni ko Kouthia lii moom lislaam ko woon wala ñu pelante ko wala jolu sax pelante woo ko rek parce que la ko mhm. wax mooy nit danga nga koy xool physiquement am jàngat boo def ci moom sama gis-gis rek laay wax. Mhm. koo xamoon Kouthia démb bëgg démb ak xool ko nii nii nii. Mhm. di nga sentir ni am na lu wàññeeku ci moom. audio yi nag yi. waaw am wàññeeku ci moom man li may ñaan dama koy ñaan rek nit dina toll foo xam ne ak yow sa diggante ak moom da ngay sóor lu baree baree bari mhm. jéggal ko yàlla tax. te loolu nag duñ ko ñaan kenn lu dul Youssou Ndour mi nga xam ni. mais jotewut ak Youssou. moo waaw moom laa wax. mais moo ko jotewut ak Youssou. Hmm. mais Youssou Ndour mooy PDG TFM. man damay ñaan en tant que taalibe di ko ñaan yuusu yërmande gi mu amoon démb ak bërki démb ci Kouthia yërmande gi mu amoon démb ak bërki démb mooy ce n'est pas la première fois Kouthia lu mel ni dal ko dal na ko Youssou def ci yërmande mu dalate ko mu def ci yërmande dañ koy ñaan dañ koy ñaan moom Kouthia mu bëgg ak mu bëggul man en tant que taalibe damay ñaan su ko mënee jëlaat mu jëlaat ko parce que boo seetee Kouthia liggéeyam la li ko sénégalais yi euh, fonke woon soppee ko ko mooy ñu koy gis TFM seen xol di am lu muy bëgg moom it bu fekkente ni li ñu ko tuumaal moo ko def mm. tuuma moom alalu gor la da ngay jéggalu rek mm. bu dee lu ñu ko tuumaal moo ko def na jéggalu su fekkente ni li ñu ko tuumaal defu ko mm. mu baw ak boppam ak yàlla waaye ñi mu séqal communication bu mu rëy déedéet bu mu rëy bàyyi san moo mu su wàccee boppam dem communiqué ak ñoom ñu utaatal ko jàmm mu dellu su waat liggéeyam mu daal bàyyi loolu laay wax ku Kouthia daal j'aurais préféré. Mhm. ñu dolli rek mën na ci moom. Mhm. ndaw si borom ris mu njiis nu mu tudd. poté mhm. ak nga xam ne mooy Pape Cheikh. ak lu mën a xew ci àdduna. ñooñu tax ñu daax dama jox exemple parce que ah. dafa dafa tudd ni ñett. daa tudd ni ñett seen tur de xanaa ñett ñi mu tudd. waaw ate Assane. Ah. bu fi indi problème. <laughs> dama ne ñett ñi mu tudd. <laughs> ñun ñëpp xam nañ tudd na leen. Mm. koo xam ne kilifa la ca bu biir kër ga du ma tudd turam waaye ñaar ñeneen ñaar ñi mën naa leen tudd. bu mel ni Poté ak Pape Cheikh ak ak dafa su ma juumul bu ah, Poté moom day yóbbuwaat gis naa ñoom ñett seen photo léegi li ci xew ba xew ci mooy na ñu am yërmande rek ci moom nit dina tooñ nit dina def erreur mais kenn nañuy xam ni yow baam bi kii tooñ na def na erreur mooy jamono ji nga am yërmande mm-hmm. jéggal ko te yàlla tax baal ko te yàlla tax man loolu rek laa am na solo mi ngi noonu kon di ko jaajëfalaat bu baax Abdou topp sëñ Fallou Gumbala ak Abdoulaye mi nekk si euh, technique bi euh, di di noo déggee élément Kouthia bi Euh, Assane am na lu am solo. Mm-hmm. man bi ma gisee Kouthia di wax sama yaram dafa daw ndeysaan. sa yaram daaw naa daw Kouthia Kouthia <laughs> Kouthia changement bu garaaw la am Kouthia démb ku ko xooloon mais xool ko ko léegi nu mu jeexee. ku ko teg la. kenn tegu ko moo ko teg boppam. Mm-hmm. parce que bu fekkee liñ koy tuumaal moom la. Mm-hmm. parce que nee na liñ koy tuumaal audio la ñu dégg te xamuñ audio yi ci moom la jóge wala. donc ba tey moom avoué wul nee na na jab jabar ji mu doon sëyal waaw mais man li ma dégg sànq laa wax nee na ba tey kenn amul amul ay preuve ne moom audio ci moom la jógee d'accord ba tey mais ki nga xam ne jamono ji kii euh, Baye Assane mhm. tooñ na la mhm. ñun ay jullit lañ Baye Assane te Sénégal lañ nekk suñu gaal sax laay wax mhm. Sénégalais ñun ci boppam ñun ñooy tooñante suñu biir waaye ñoo war a baalante suñu biir te gis nga Amina Poté na ma ya na na ma kii mais naa ku baax la parce que moom la wax wax ji yenn wax yi ba tax am naa de porté ko plainte. Ah, euh, bien vrai que Pape Cheikh Pape mais ñoom ñoo tax ñu dàq parce que seen audio lam leen ci wax ay wax yu ñaaw la bien ah, vrai que nit ñi dégg nañ ko moo tax instant yi tey Kouthia man dama naan sax Kouthia même est-ce que buñ ko woontee ne ko kaay léegi est dina ñëw mm-hmm. parce que ñam ko sekkal est baal nañ ko mm-hmm. parce que yow bu lekk fi ngay liggéeyee tey nga xuloog Bambi xuloog xuloog oustaz xuloo te mag la am na yoo xam ne mag moom ko <laughs> kilifa la am na ay doom sénégalais ñoo war a xam comprendre nit ki comprendre <laughs> non dëgg la nit ne euh, Assane da def erreur tey jii ñàkkul na loo xam ne tey bëggoo kenn xamal la ko ku nekk fa nga toog yaa ngi am sa secret boo xam ne bëggoo kenn xamal la ko tey li ki nga xam ne moo def lii muy jabaram bu fekkee loolu dëgg la li def du dëgg du yoon hmm. tey bu mu nekkoon maa Kouthia dama koy porter plainte parce que naan xool ko la mu wax diw xool ko la mu wax diw et pourtant mën nga nekk fi la mu ko waxee sax ndeysaan jëlewu ko foofu tooñ na leen nañ ko jéggal te baal ko ki ko dàqate xaw ma Youssou Ndour la xaw ma euh, kee la mais dañ ko war a jéggal mhm. parce que yow euh, euh, Assane boo ñu boo leen jaboote tey maag baam bi ñu am problème ma tooñ baam bi wax baam bi yëg ko lu mel ni tey mu siiw ci réseaux sociaux li la war mooy nga woo ma woo baam bi mhm. jubale ñu mais bul jël part jëlal paar Modou jëlal paar Assane ne comme man Biddi maa fi nekk jaxasekat bi danga may dàq mais yow a xool parce que man tooñ ma la Assane wàññi la du wàññi dara de ah <laughs> naa da nga jaxase kër gi de wàññi la du wàññi kay kay jiite boppam moo leen war a jubale wàññi affaire mu jeex calme mais bu andi ay problème ba dàqalu Kouthia mhm. Kouthia tey nañ wax dëgg nag am na liggéey bu am solo Sénégal tey Kouthia amul fooy dem taxaw te tuddoo ko te boo tuddee Kouthia duñ la ne xam naa ko nañ ko jégal bàyyi ko mu yeggal liggéeyam parce nag mag la yor njaboot. <laughs> nañ ko bàyyi mu liggéey. maam bam bi noo dégg élément Kouthia bi eh, ñu ne dàq nañ ko TFM muy di liggéey ba xëy na dàq naa la mais gaa yaa ngi dem sa classe gi di si yokk ay ñeneen nit di leen si tudd. waa dàq naa la ko dàq naa la moom Assane wërsëg moom bakkan la rek moom daal la yam fu mu yem fa lay yem. tey ñaanalu ma nag mën nga xëy tey ñu ne dàq nañ la mën naa xëy ñu ne dàq nañ ma maar de taal non exemple laa la wax dàq nañ la du kaa non fii du da nga ma posé question laisse-moi terminer s'il te plaît. dàq nañ la waaw dàq nañ la <laughs> <laughs> du cas waaw dàq nañ la vraiment du cas te du fi gan. Hmm. te kenn du na gulet. ni ku ci nekk fa nga nekk di fa suturloo fu sa wërsëg nekk ala kuli aal nga jóge ca. Hmm. ñun ñëpp xam nañ loolu. mais booy dem aussi na dem ba rafet. buñ lay dàq tamit bul toogaat ci penc ñu lay yedd ndax gor su nekk am na yenn yoo xam ne moomu ko man su doon man selon man sama gis-gis bu gaat Samba Sine ma koy nuyu au sama xarit la. sama PDG saa njoogu mee nga xam na ci dara saa man euh, Kouthia sama xarit la tey bu ma toogee télé Kouthia ak saa njoogu mee la ñoo ma doole ñoo ma may fit saa njoogu moom a njëkk a wane télé ci démb ak tey ku gërëmul nit doo gërëm yàlla jëlati ma ci jommetam bi di ma fay lu ma am méng ak mboor yow la waaye Kouthia tam dafa jàpp ci samay mbir jàpp samay mbir mooy bam bi mën a ko naam mu ne ma yow da nga neex da nga mën yëf Hmm, kaay ngay def animation si maanaam wax la dégg la laaj. Ah. kaay ngay def gis naa la tey nga war a def animation wala nga def genre parce que da nga ngéwéle ma ne ko géer gu yàq moo raw géwél donc tey bu ñu demee ba à ce nit gis dara ci yow xam ne yow mii lii ku la ci jàppale ku la ci pouse nga dem kooku nit ku baax la man selon man su ma doon man man ko caa du ma génn di wax. nañ ma dàq ñu liir ko à la une. Hmm. nañ ko lire di fu nekk nañ ko lire ci internet xaaral xaaral man dàq nañ ma du ci wax ko quoi man sama xalaat laay wax. Hmm. dàq nañ ma du duma ci wax parce que li wees wees na ku ne dégg na moom wax na ko ci boppam. waaw moom moom wax na ko ci boppam nee na. Hmm. xamuñ ndax moom la wala du moom. te moom tam bu mu fàttali def na ñaari sorti njëkkoon a def sorti mu ne sama jabar ji ma doon ah, sëyal la kon moom mi ngi gàddi gàggante boppam bugguma loolu. moom bu mu gàgg gàgganti boppam mm-hmm. parce que njëkk na def benn sortie seetaan naa ñaari intégralité mm-hmm. mu ne sama jabar ju njëkk moo ma doon enregistré moo génne li moo wax li mm-hmm. léegi yow comment ça fait tey nga ñëwaat nga wax ñu ne kenn xamul ndax man la wal du man man bugguma loolu gis nga man su ma su ma su ma juumee naa nangu ne juum naa ba réew mi xam ne maa juum hmm. kurul juum amul ndax borom suna taala moo gën a màgg te dañ koy tooñ sàbbaal ko wax astafrillah jéggalu ko mu jéggal hmm. waxuma la nit ak moromam ndax lu lor nit dafa yomb lu yàq nit dafa yomb lu yàqal nit tamit dafa yomb hmm. Amina Poté sama rakk la ma koy nuyu au passage ñoo yorondoo kaw la di nuyu maman Ndeye Sile Thiam salon bu ñuy jaar temps yi xale ba muy seeg ndiir mbay muy sama rakk ju baax groupe bi mooy ubbi barki Demba Ndiaye dugal mu ngi ciy dugg di wax di nuyoo di xappi di retaan loolu nit ñi mu liggéeyam lool nag bu jëw ma ak moom sama rakk la bu jëwut ak keneen bu jëwut ak keneen kenn ku ci nekk le meilleur gañ ku nekk sa domaine nga nekk mhm. faralu ko man du ma apprenti genn mhm. fi ma toog dama koo fees tubaarkaal la macha allah kon nag moom itam jullit la suñ ko tooñee ba mu am preuve que ni mhm. euh, Kouthia moo ko xas wala moo ko yàq moom ak Viviane ak Pape Cheikh Diallo ñoom ñett ñoo moom wax na ku ca am grandeur oo ko ne ko jarbaat parce que moom li dugal Amina TFM loxoom mi ci ne ko jarbaat nga ne ko naam ah man kat lii waxuma la ko di wa ko wala nii la demee moo tax wax wala maa bëggoon a neexal sama ngor wala neexal sama sëy moo tax ma wax mm. mais baal ma àq Amina mus na tooñ te baalu kooku keneen mus na ko tooñ fii ku ne da ngay juum fii ku nekk da ngay tooñ jëkkër ak jabar dañuy jote yaay ak doom dañuy jote mm. xarit xarit dañuy jote ay liggéeyukaay dañuy jote mm. nga pare woo Pape Cheikh sa rakk la Pape ah man ki wax li daf ñoo jaxase wala waxeewu ma ko woon ma ci woon nii nga pare da nga koo dégg mu wax mm-hmm. tey la a congoma hmm. gën a def yu sexem moom tubaarkàlla ba ñuy wax ci ñoom ba tey ñu ngi dem hmm. gis nga fii ku doonu dara amoo dara tekki woo dara kenn du wax ci yow dara ñi doon dara ci réew mi hmm. donc nekk quelqu'un ou quelqu'une la ñuy waxal te wax nag di bon dëkkul fa mu jëm fa mu jógele ci saano Kouthia bu ma doon yow doo génn di wax xool ñi nekk la mi sàmba fi doon wax naan TFM bu ñu may diri di ma dàq du dem te ma nga ne dàq nañ ko toogutoon jooy am Moodu kon mi ngi noonu bu ko defee Kouthia boo si noppee nga dugg si làkk gi ñu doog a kii. làkk waaw Kouthia affaire bi day gaaw di di Kouthia waaw Kouthia man jàpp naa ne euh, li ko dal maa ko ci masawu sama xarit la Kouthia yàgg nañu wal fajiri mu nekk sama xarit dëgg wax dëgg fa yàlla. Hmm. ñu partagé ay moments yoo xam ne moments yu neex la. Hmm. li ko dal maa ko ciy masawu erreur la. Hmm. mais erreur bi erreur bu. bu bu directul la en fait parce que moom waxul woon ci espace public bi xëy na kay dafa nekk dafa fekk ne audio yi ki ko génnee moo ko tooñ moo ko tooñ te te yaakaar naa moom def na ci ak lu mën a xew audio yooyu kenn ko génnee Assane Assane ñun ñi ku ci nekk am am na wax yoo xam ne da koy wax sa biir kër du génn ci mbedd bi bu fekkoon ku nekk yaa ngi génneel ki nga nekkal sa jëkkër muy sa jabar yaa naa jëkkër moo gën a mën a yàq jabar jabar moo gën a yàq mën léegi man foofu la erreur bi nekk du erreur bu volontaire léegi nag man li ma jàpp mooy Kouthia même bu bu ko TFM dàqul woon du fa tegaat tànkam. dafay hmm. xat ah, que. am am na loo xam ne bu <laughs> amee c'est involontaire ndogalu yàlla la. waaw ah, dëgg yàlla waaw ndaxte. moom hmm. oustaz mi ngi koy wax mi ngi ñaan yusu Youssou ku bëgg Kouthia la. Kouthia dundul na événement yoo xam ne yusu mooy weñ loxo administration TFM dem jëlee Kouthia. ndax hmm. daf ko bëgg te loolu noonu datewul tey yusu bi Kouthia di nekk Walfadjri la ko bëgg du tey. bii nag dafa nekk situation boo xam ne dafa xaw a compliqué. Hmm. nit am na loo xam ne bu dalee ci sa njaboot des fois da ngay def ni da nga seetaan. Hmm. xëj na Amina porte na plainte que ku nekk da nga porte plainte pour laver sa honneur. Hmm, plainte bi laver wul honneur bi njégale bi moo ëpp doole pour man. nañu ko jégal. mu jeex te ku Kouthia moom tamit moo war a xam ne man jàpp naa ne wër wërsëgam moo fa jeex. mënoon na fa moom ñaata yoon la bàyyi TFM di fa dellu. tey bi bii pour man wërsëgam moo fa jeex ndax bii nii. c'est irréparable bii c'est irréparable même bu ko Pape Cheikh jégalee booba jégal ko naa jégal ko Viviane ñëpp déggal ko jégal ko moom yaakaar naa ku caa góor la yaakaar naa dina am ay difficulté pour taxaw jàkkaarloo waat ak ñooñu kon nañ ko na rafet jaratul muy wax comme mu ngi commencé beneen carrière nit ñi di ko suivre ku caa artiste international la fu mu dem nit ñi seetaan ko waaw bu ñëwoon solution gi tey mm. nit ñi seetaan ko mm. voilà kon moom euh, na doxalaat doxalam mm. xam ne mun na am lu nekk. Mm-hmm. mu ngi jëm mag yàlla ko yàlla gën a taxaw. Mm-hmm. li ko daal metti na. Mm-hmm. ndax Kouthia nitu kersa la Kouthia li nga koy gis nii. li ustaas bi wax mun na def yëfu jigéen yëpp ci liggéeyam nangam nag. Kouthia nitu kersa la buy wax ak yow du sigi xol la. wallaahi azim dama ko xam bu baax. Oh voilà xam naa ne lii lu ko métti la. kon bu mu ci rajouté dara. mu ngi liggéey déjà mu ngi def buzz mu ngi ñëw ci affaire Ousmane Sonko namm naa la vidéo yaa ngi daw ci réseaux sociaux yi. mu liggéey. te TFM mu jàpp ne page bi ñu tourné la. et yeneen TFM ak yeneen mbir mu ngi ci kanamam quoi. léegi nag bi moom je pense que. Mm-hmm. comme temps beneen kii ñu ñëwaat si incha allah rabbi mi ngi noonu xam naa ne man moom li ma si eh, dool li bëriwul mooy Kouthia yaakaar naa ni lii lim ko daal bari na li ngeen ko waxee yéen ñëpp wax ngeen ko ba bu ba mu nekkee eh, TFM génn dem ba mu fay duggaat dafa waroon duggaat si lu leer. waaw bu fa duggaatee su leer génnaat. loolu du génnaat xam naa génn bi mu génnaatee barki dem la dem ITB. ñetti émission dafa def ko mu ñëwaat demaat TFM parce que mel na ni Kouthia ak TFM moo nekk une histoire d'amour bu yàgg kon nag war a xam loolu Kouthia ñi sañ ci TFM ci la bokk dama bëgg a xam ne TFM bi muy démarré ñun fi loon fekk mhm. seen émission phare Kouthia la woon mhm. dañu waxante dëgg donc Kouthia dafa andi ñaq ñaqam ak lépp ci biir TFM mm-hmm. te loolu coloré boobu Youssou sàmm na ko ba fi mën a yem mm-hmm. wante mbir bii mm-hmm. dafa xaw a doy waar waaw mais mais mais moom li Kouthia wax na fi leneen baal ma du ma dagguma la Kouthia def nañ fi manifestation mu ne TFM dañuy recruter ay caga di leen fay xaalis nangam nag ah. xam nga bu garaawoon na ah. mu ñëwaat dellu si mais bii ni mu maanaam wax bi ni mu bindoowee c'est que ki mu ko séqal moo bon rek moom et waroon am courage def ko toog ci réew mi léegi da xaw ma nga mar xaw a ma nga fan lu ko teree ñëw na ñëw comme def na ko na ñëw kooku moo bon mais bu nekkul loolu image yu Kouthia dañoo xam ne bu ñu doxaan dañuy neexalee ay nit de ci doxaan bi waaw am na solo xam naa ne daal mi ngi noonu kon moom mu gën a bàyyi xel te it bañ a bañ a jublu si xeex ak TFM ndax gis naa bu xëyee di dal si kaw journal bi wala muy xëy di dal si seen kaw yooyu yëpp amul njariñ na jublu si liggéeyam média te coow jibu liggéeyam rek nañ ko bàyyi moom dawul xuloo non non non. non Kouthia fu mu bi mu nekkee Walfadjri ah. ku ku laal Walfadjri mu dal sa kaw. bi mu nekkee TFM. ku laal TFM mu dal sa kaw. léegi nag bi mu nekkee ci boppam wëlbatiku yaakaar ko laal mu dal sa kaw ah. kooku liggéeyam la. mu ngi hmm. def ak comédie am nañ ko ko wàccee. Hmm, am tey jii fee mu nekk ne bu fekkee wëlbati ko ne di xool ay salaire day am problème léegi nit ki mën ngaa nekk fenn def fa fukki at nit ñëw fa def fa ñetti weer ëpp la salaire bu mu la metti yow liggéeyee sa liggéey contrat moo la fa dugal dañ ni la lii mën ngaa nekk nga ne waa nga dugg keneen ka la la ko dugal salaire am ëpp sa salaire bu mu la metti mais chaque jour salaire day jooy kii ëpp salaire bi ñu fay kii salaire bi yooyu amul njariñ kilifa da xam ne kilifa nga moom laa ko doon doole te di ko ñaanal baax a baax suñu borom defal ko ndam defal ko feex kon mi ngi noonu di di ñu gërëmaat ñi nga xam ne ñi ngi ànd ak ñun ñëpp sant day am ndam sax ndax nag nee naa la kuy bégal jaamu yàlla yi euh, mba kii rek nga si <laughs> non comédie la rek ayca <laughs> alaaj ah. topp andil ñu bàkk bi ñu ñëw ci kujje gi ba xamatuma man maay kan mënatuma dëpp xaw ma fi ma nekk mooy fan ay ci ajaratu baam bi jëlal waa amin yaa rab yow yàlla moom bu loo bu yow maam ma xam nga ne tagal dalaa téye yaa ma conseil tey na ma musoorul de. nga war tagal nag tey ma defee fa jéeg. xam naa ne instant yi dina xolam baa ngi sedd ni wana ko mboot. dëgg laa bëgg nag. <laughs> <laughs> waa tey gis ngeen ko damaa jéegu macha allah ah musóor gi maa ngi koy may jongo ma yëpp nag dëgg la <laughs> waaye ñëwaat ci émission bu mag bi la du ma di la ko wax nee naa leen jommet ko jommet bu dee daf toog ku jóge amati solo la nit ndi tey muy lan la xew Amérique umpul kenn baax mi nu ba fa Macky Sall demee yu xombaa yi ko def ak la fa xew ak nañ def euh, euh, comment dirais député bi la kooba bi waaw lañ ko def ndax mu amul jom lañ ko mënti def yëpp kura kooba la lañ ko def yëpp sotti koy ndox ba pare xam ne baaraam ak kura mën a dem kura lam dem fecc kii fecc kan la kuréelam baara mbay ak vest vest bu ndaw bi <laughs> koro maa ngi leen nuyu au passage dëbb nga Amérique waaye tam ñam nga dégg donc réew mi yëng na réew mi waxul dëgg tubaarkaal la ku jóge ca Amérique doy na waar opposition bi ak parti au pouvoir élément Sonko yi surtout ma préciser je pèse bien moo teel laa toog di wax lañu fa def ak lañ defanteek waa parti au pouvoir bi di seetaan ko man xam nga lu ma ci gën a neex rek ambiance certes am na defante am na mais lii dafa waroon di am Sénégal parce que opposition bi taxawee nii pouvoir bi taxawee nii ñu naan fi mu gën a neex ñuy jàmmaar lool dem demul dem dikkul tamit que le meilleur gagne mais tey Sénégal bu ñu ko fa dem mu ngi mel ni rek Amadou Ba ñu ngi koy bàyyi muy warum réew di toj Malick Gakou fu mu dem ñu kar ko son euh, Bougane fu mu dem ñu kar ko Sonko tëj nañ laam ñam ñun tam fu ngi dem ñun Sénégalais ba ñu ñu xamal yebati li ñaaw na Youssou Ndour ñam na ci tubaarkàlla ci waaye moom dafa muus il super intelligent du rawal mbégaan dafa wax gars yi may naa leen deux minutes ngeen wax seen soxla xale yi bu leen ko maytoon dëkk bi yëngu kon dina am ñuñ génne wala soirée ba du yegg parce que ñu naan libéré Sonko libéré Sonko nañ nangu dogal nag Sonko nag taal bu yàlla taal la sànni ci mat a gën fay ko tubaarkàlla yal na ko yàlla fal cat sama waaji yaa wóor didi réew yëngu ji koy wax man dama doon jënd jënd lu foog na man kese mun fecc maa yow mais ni ko kuréel ma ci du suñu morom. <laughs> Eh. yéen de comme waaye bam bi ku xam eh, nga xam ne moo ne États-Unis nga xamee ko ci démocratie bam bi mm-hmm. tey li am yëpp ñun dama naan Macky moo leen ko may. Mm-hmm. ndax tey mouvement M24 bu ñu paree pour def li nga xam ne manifestation ñu tere leen ko. Bougane naka si noonu. keneen mm-hmm. naka si noonu. da ngay dem ba opposants yi dañuy am ab benn haine. Mm-hmm. léegi nag ñun sénégalais yi mënuñ koo am. Mm-hmm. mais léegi waa diaspora bi dañ lay xaar foofu. Mm-hmm. parce que foofu moom fa dara leen loo fay kii. dëgg la gis sax manifestation yi bi passé foofu li fa am gis nga. police yi ñoo leen di accompagner. mais lu tax loolu mënuñ ko am ñun suñu ah, réew. vraiment jot lu tax loolu mënuñ ko am. imagine toi tey bu fekkoon tey ku demandé pour sa pour amali xamoon manifestation. tey ñu may la ko nga defee ko si pacifiquement ah. mhm. parce que da gis tey waa waa waa waa Pastef bu ñu fi mhm. demandé manifestation ñu may leen ko mhm. tey boo demee fa léegi bu ñu paree euh, sachet ndox yi sax dañ koy ramasser doo dégg coow doo dégg xeex doo dégg dara mais il suffit que ñu bañal leen ko foofu la rayante gi di amee man pour man président fa war a xoolaat parce que loolu muy def noonu yëpp du enragement am donc xale li ñu def Macky Sall noonu noonu peut-être mën naa na yoon la mën naa na du yoon mm-hmm. parce que xam nga moo tax ñu def ko moo tax ñu poussé leen ko parce que dañ ko bëggoon def suñu dëkk mm-hmm. seen dëkk bi ñu dëkk mm-hmm. mënuñ koo am dëgg la mais ba mi tey yow su ma la bëggee def ko ma xaala benn euh, euh, kii xaar ci taatu ndaal tôt ou tard dañuy daje fen dëgg la mënoon na leen may au moins seen xam ne seen réew ñu defal seen manifestation ëllëg mën na am tey bu demoon dëkk boobu seen xel mën seen xol mën na giif mën nañ ah ñun kat suñ dëkk kaas nañ fa lañ fay kaas

ñu ne ci dëgg di wax dëgg di wax li xew ci réew ñu ñu tëj kon dëkk bi kenn nag ñàkk yoon bi gën a bëri sama benn xarit maa ngi koy nuyu ci Amérique bi ma ko gisee ci vidéo ma ne ko waa fils yow lay def ci vidéo mu ne ma 200 dollars lañ ma fay donc am na ñoo xam dañ leen a fay ñu génn ñëw naan nii nii te duñ ci ñebbe Assane réew mi yëngu na tubaarkàlla kon ndekk fay bekk ci set yow kay mu ne nii yow <laughs> yow tàmbaleegoo yaa ngi taxaw ni danga am ñaari élément yooyu présenté nit <laughs> présente nit ñi lii ko dafa xew Amérique nu ngeen ko gisee wëlbatiku daan ni ñee dañ leen a fay fay na dëgg la kon ñaar ñi si nag dañ leen a fay wala deux cent ñoom Ousmane Tounkara élément Sonko du fay Sénégal bi nga nekk Sonko de ci sa xol bul tax ma weer la te la nga nekk. mais mais fii fii Sonko fii nii. mais yow mais yow yaa wër te wax yow. wëroo mais yow lu ñu war a wax. fay ak yooyu amu si. Ah ah. président Macky Sall am ñëwoon di ko soutenir. Mhm. Ousmane Sonko dafa amoon ñëwoon di ko soutenir. voilà am na boor bee ñu ngi naan fii moo gën Sénégal nii ba ba ba Europe gisoo benn élément Sonko boo xam dañ lay jënd di la jox ci seen mbala sandwich Assane yaa waxal dëgg te yàlla tax. musoo ko gis xiifuñu xiif boo xamante ni dañuy dem taxaw fee di tàcc mhm. pour ay ab xaalis mhm. dañoo dem di soutenir seen président mhm. ñee dem di soutenir Ousmane Sonko beneen bi it am naa si naqar ni ma ko waxee woon naqar wu rëy si ñoom Ousmane Tounkara ak ñi ñu àndal li ñu def ndax loolu ñu koo def ñaaw teef yi am Sénégal gii ñu dajale ñaawteef yi ba si ndey ñaawteef yi def ko def ko si kele dem teg nday ñaawteef yi si Amérique teg nday da ngaa saaga wala non non teg nday dañoo jël ba jël nday ñaawteef yi <laughs> xam nga nit ku tëdd ñu dóor ko bal deret ji sa tatati loolu ñaawteef la <laughs> nga jël ko boole lépp ustaas a ngi nii du ma bàyyi ma fi ndey a ngi nii nga nga boole ñaawteef yëpp def ko si kere dem jox ko Ousmane Sonko ñu teg ñaawteef yi États-Unis yëpp gis ñaawteef yi am Sénégal loolu lu mënoon a ñàkk la ñaawteef yi mën nañ ko jéem a seere fii nax ko naxtaan ko bës bësal ko waaye fi ne ni àdduna bi yëpp xam na ni Sénégal ñaawteef kese la mhm. loolu daal wax dëgg yàlla ne xool ëllëg nu ñu koy defee beneen bi remercier Koura Macky ndax wax dëgg yàlla wàcce na tension bi nga xamante ni mhm. naroon naa am foofa ndax nit ñi kaf nañ foo nañ ree nañ mhm. ba ci internet bi groupe WhatsApp yi yëpp ñu ngi kaf naan Koura Macky mën naa fee ci mun tafee ci loolu lu am solo la donc loolu lu am solo donc yow daal d'accord ci autopodium bi loolu ñu def si suuf ah maa ngi yow xool ma ci bët Assane yow nga nga estati loolu yow. Hmm? oto podium bi sat whatsapp laa ko ñu ko gisee. yaa ko ñu ko estati vocal ma waxtaan naan ma gis nga gars yi lañ def kontaan naa ñi ñu ngi zee. tey nga toogaat naqaru. lu ne man Assane yaa mën a cuubu. man lu ne man man maa kontaan euh, une heure du ma kontaan deux heures ah. <laughs> Modou réew mi yëngu na kii dama dafa soxal dafa jeex. Euh, Modou euh, réew mi yëngu na tubaarkàlla li xew Amérique ñëpp gis nañ ko ñii ñu ngi koy rafetlu ñii ñu ngi koy ñaawlu ñii ñu ngi ciy kontaan itam yow naka nga gisee ak na nga ko mën a jàngatee ak lu waral loolu itam ndax mënoon na am mënoon na ñàkk wala tamit am gi dafa am message bu muy joxe ndax dagan na ou waaw mënul woon ñàkk mhm. mënul woon ñàkk ku gis réew mi ni muy doxe nga xam ne mënul woon ñàkk damay jël sama kàddu ma sof ko ci benn journaliste gabonais mhm. bu bind benn post ci Facebook mu ne moom mhm. couvrir na sommet ONU quinze yàgg na fa gis ay manifestation mm-hmm. waaye musul gis bu mel nii. Mm-hmm. man couvrir naa sommet ONU mm-hmm. benn yoon. en 2009. fekk naa fa ay manifestation waaye di amul benn bu mel ni dëgg la man dem naa ONU président iran iranien di ñëw. iranien yi nekk ci beneen tali bi def seen manifestation dëgg Ablaye Wade bi muy ñëw. Sénégal yi ñu ngi nekk ci benn côté def seen i manifestation te boobu noonu ñoom Barthélemy Diaz ñoo doon jógee fii. ñëw ànd ak quelques sénégalais yu nekk foofu noonu ñoom Souleymane Jules Diop yi nekkoon Canada. ñu ñëw taxaw def seen manifestation am na boo xam ne je me rappelle. maître Madické Niang dafa ñëw. pour pour wane woon ne manifestation bi amul nit. dafa ñëw ne ma kaay leen ngeen filmer lii. ñu génn bi ñu ñëwee fekk nañ gars yi ñett lañu waxoon ma ñeent bi ñu gisee ñëw caméra yi ñu daw ndax boobu da ngay toog ñu ne Ablaye Wade yuuxoon nañ ko New York yuuxoon nañ ko fekk daanaka ñu ñu fa nekkoon sax daawuñu yëg ne. ñu ngi ko doon yuuxoo. wante bii nag dafa maanaam Macky waroon na ko xaar gis nga bam bi man dama yërëm Macky Sall te maa ngi koy ñaan yàlla dégg sama kàddu yi nii xam nga dafa am dund après le pouvoir. Macky te bu demee New York. Mhm. ganu Amérique la. Mhm. danañ ko jox sécurité. Mhm. jox ko kaaraange aar ko lu coow lu coow li bari dara du ko daal. Macky Sall bu nekkatul président. dem New York wala dund comme simple citoyen est-ce que attan na lii. déedéet Macky Sall dafa yor njaboot. ko sécuriser dootoo amati pouvoir boobu dama déglu dama defal ndànk fa laa jëm si Didi. Mhm. dama dégg ay déclaration ay sénégalais. Mhm. ñu ne Macky Sall comprendre gul sax ñu ngi xaar ba mu wàcc. Mhm. ba nekkatul président ba ñëw fii. c'est que euh, Bambi damay Macky Sall mënu ma ko juger ci politique. bon nee nañ ko mën politique la c'est le chef d'état mooy suñu kilifa. mais pour man dafa def ay erreur yu gis nga deux mille vingt bi ñu àndee problème Ousmane Sonko. Mhm. daf ko waroon ignorer. bañ ci agsi fii mu ci agsi nii. Mhm. neutre ci rek. ndax diggante mu Ousmane Sonko dafa dem ba. Mhm. jéggi état. jéggi politique. nekk haine entre ñaari nit. te mënoon a ñàkk te lu mën a ñàkk la. man xaw ma man Macky Sall xamoon naa ko avant muy nekk xaw ma ko personnellement de. Mm-hmm. mais gisoon naa ko avant muy nekk. président président Macky Sall image bu mu amoon dafa suul image bi daf ko suul. te wallaay ñu ko xam xam nañ ne nit ko lawet la nit ko baax la mais dafa dugg ci mbir mi ba. sori ci xaar rek ba ma pare xaar rek ba ma pare dama lay wax di ko Sénégal yi di gisee. parce que mënoo bàyyi dagg xaar rek danga may danga may dagg. Ah. Ousmane Sonko bi ñu jiiñee affaire viol Adji Sarr dafa waroon écarté li bu ko écarté woon. kon Macky Sall tey mooy am sortie bi gën a honorable ci politique Sénégal mais Macky Sall moo nekk président bi nga xam ne mooy gën a métti sorti mhm. ci président sénégalais yi Ablaye Wade 2011 obélisque diri lañ ko fa jaag ne góor gi dee na suul nañ ko billaay mu muñ Ablaye Wade bi mu daanoo bi mu demee bitim réew bi muy ñëwaat Sénégal dañ ne ko dañoo juum Ablaye Wade wàcc na aéroport 18 heures ba 22 heures mënu andi mënul su PDS ndax ay nit mhm. Macky Sall mën noonu am lu ëpp loolu. Mhm. nit yow yaay liggéey sa tey. Mhm. sa ëllëg mhm. ak sa après. li nga wàccee ko yàlla. fi mu agsi Ousmane Sonko dafa sori. te sénégalais yëpp. jàpp ne lii jaay doole la. loolu nag daf koy topp topp njabootam te man loolu laa ko bëggoon éviter. gis nga mu wax ne du ma mu wax ne du ma du ma nekk candidat. benn la mu bàyyi woon ñëpp bokk. daf koy gën a sagal. est-ce bàyyi ma la Sénégalais li ñuy def New York dañu ko préparé xam nga New York dafa am benn rue bu tudd Times Square. Mhm. boo fa ñëwee Times Square benn benn la boo xam ne mhm. ay écran la ñu def Sénégal dañoo def ay espace mhm. ay télé. Ah, di fa diffuser image maanaam image yi ñëpp ko gis ci àdduna mooy fu rek waaw foofu mooy Times Square ku dem New York dem nga fa benn allée boo xam ne guddi gi mooy gën a xumb day mel ni ko wër pour ay publicité lañ ciy def Sénégal dañoo dem jënd fa ay espace pour jéebaane Macky Sall ñoom ñu ne Macky Sall bu wàccee bu ñëwee fii ci lay soog a comprendre kon xam nga mbir mi nekkatul mbiru personne la. Mhm. te ba léegi nag dindi ko weesul damay ñaan président Macky Sall. Mhm. ne oyofal mu yolomal. Mhm. yàlla daf ko cëral ci réew mi. bàyyi Sénégal tànn ko muy njiit réew. mu jiite fukki at ak ñaar. jeexal muy dem. war a toog ci réew mi kër gu ko neex mu dugg te kenn du ko xone sa bët bi suuf a ngi ci. Sénégal bi waaw dafa loolu ma weesoogul de weesoogul. na baale mu jéggale dossier Ousmane Sonko rek la ko yomb na. dëgg la. yomb na xam nga ñuy teg Ousmane Sonko nii di ko teg Bassirou Diomaye di ko andi ñoom Fadilou Keita wax dëgg fa yàlla bëgguma critiquer justice mais lu ñu mën a dindi la. nañ ko bàyyi. Hmm. génn bokk ci élection yi bu nekkee sénégalais yi moom lañ bëgg. Hmm. sénégalais yi fal ko. moom Macky Sall bu paree mu des ci réew mi. waaye bu di ma ma ba daaneel baam bi bu defee nii ba élection yi passé hmm. moom Macky Sall ñu utu ko mu war a nekk moom Macky Sall kenn ak benn garde corps bu ko état Sénégal di jox. ci lay sentir colère sénégalais. dëgg la mais garde sax ñam na Amérique ah. waaw li mu nekk garde corps rek garde corps bi ñam na Amérique image yaa ngi fi ñu ciy nuyu Caba Dramé kañ sose ma maxtaar sama ma ko xol bi ndax yaa ñu may image yi wan ñu ko ah sànq rek bi may ñëw maa ngi lay woo téléphone ñuy waxtaan lu bëri sama mag ji ci conseil yi ci man defeel nii defeel nii waxeel nii ni nga def baax na yaa gën yaa ñàkk ki ñaan yaa ma jàppale yow tamit merci beaucoup ma grande oustaz réew mi yëngu na la xew Amérique gis nga ko seetaan nañ ko li ñuy def président Macky Sall ak ñoñom ak la waa Sonko def itam nan nga jàngatee loolu ni ni mel waaw c'est que euh, Bambi euh, sànq amoon naa jàngat. Mm -hmm. mais euh, waxu Moodu bi dafa am beneen jàngat bu ma ci jëlee. Mhm. daf la viré. waaw daf ma viré. c'est que dalay saraxe de. <laughs> déedéet déedéet. dugg ci dafa tàmbale ay Irak la waxu Moodu bi viré ma euh, olof day wax ne lu ñu fàng kenn du ko jeex tout à fait. Euh, président de la république Macky Sall. Mhm. li Moodu wax ni. Mhm. maanaam nekkul ko mu fréquenté. Mhm. mais avant xamoon na ko. Mhm. ñun ñëpp ñu ñu fi toog ñëpp. Mhm. avant bi muy laaj réew mi. boo ko xoolee dafa am benn jëmm booy gis ci moom. da gis ni bu ko kenn waxul da ngay nangu ni kii dafa yaru. bu ñu bu ñu soxorul quoi. bu ñu soxor non non dama ni. da ngay nangu ni kii physiquement. dafa yaru. ñun ñëpp Sénégalais yëpp avant muy laaj jamono ji muy campagne. lu mu wax dañ koy déglu. macha allah lu mu wax dañ koy comprendre. Mm-hmm. lu ñu wax dañ koy dañ koy accepter. ndax dañoo gisoon benn. benn benn benn yarute goo xam ne dañ koo gis ci Macky Sall. Mm-hmm. Bambi. léegi nag. Mm-hmm. bi ma demee pale man damaa dem Palais. nii nga toogee nii. nii la Macky toogee ma toogee nii ma toogee nii distance bi nii la toll. mais bi ma ma toogee. def nañ fa trois heures de temps. yaa may dégg. trois heures de temps yi une de temps yi lañ ko gis toogandoo moom mais Macky Sall bi ma doon gis ci télé bi ak Macky sàll bi ma tiimoon man ñi doon wax ak moom bokkul Modou boobu Macky Sall da doon reetaan man Souleymane wax naa waxloo ko ba mu reetaan ba siis bi mu toogoon yëngutu mook Cheikh Naama ñëw dend yaa ngi dégg ma gis ni kon kii li nit ñi daal wax jamono yooyu président bu dul ree la ma ne kii day reetaan kii bokkut ak président parce que keroog ñëwuñu fa ngir dañoo ñëw seet si président mais ni mu ñu accueillir daf ak accueillir accueilliru taalibe ñu nit ñu sawar toog communiqué ak moom waxtaan ak moom foofu muudu bokkut ak le président de la république du Sénégal li Modou wax dafa am solo mooy bàyyil xel pouvoir yi la yàlla lay jox yàlla moo joxe pouvoir mais yàlla joxul kenn pouvoir pour nga natti doomu aadama yi mm-hmm. dama ni yàlla laa ni yàlla mbaa dégg nga li ma Baye joxul kenn pouvoir pour nga not waa ak kum président Macky Sall ak ak kum mën a doon yàlla joxul kenn pouvoir bi pour nga not ci doomu aadama yi dañuy not notuñu yàlla bu la joxee pouvoir jox lay doole jox la nga mën a nga mën nga mën lu la neex génnee fii jaaree fee xam nga dara gënta neex ñu ni yaay président de la république du Sénégal mm-hmm. pouvoir boobu doole jooju xoola di ngay ñëw may ñëw kii ñu ñëpp ku ci ne yor sa oto ñun ñu wàcc leen tali bi ñun ñëpp ñu taxawee nële ñu ne le président moo fi jàll ñu orienté ko teg ko ci yoon bi doole jooju nguur googu boo amul taqwa boo amul ragal yàlla doo xam noo koy gérer te gis nga après dafa jël suur ñetti temps yi dafa jar a bàyyi xel de le passé le futur ak le président yii nag dafa doon yoo xam ni nit war na koo sóor gis nga fi ñu nekk nii daa war a rafet mhm. tôt bi si ñëw ci bisi mhm. ñu ni ñëpp dootuñu toog mhm. ku ci ne day fàttalu rek jëf ju baax da nga a seqal sa muy dëgg macha allah te ah, mooy li le présent dund le futur mooy li ñëwagul donc gor war na koo sàmm ndax kenn ku ci nekk boo dee àla kuli al yàlla yéex sa loxo ndey jor li nga wax ci lay xaalal man bi may dem Touba rek yoon bi ma dugg Touba dañ fa teg ay barrières ne fii autorités yi ñoo fi jaar waxuma président rek de ministre yeeg cadre yi ñoom lañ ko xaalal ñun ñu jël yoonu mbartal bi jaar yoonu suma ma ci sama raq bi caméraman bu euh, Walf kii euh, Walfadjri bi gore Thiès bi yaa ma naka jàppale na ma ci yoon bi lool vraiment ah nee na nga bébé a nga bëgg loolu dinañ ci waxtaana incha allah taala <laughs> amaat mbégte gu rëy rëy ci ma bilee <laughs> la instant yi sama xol baa ngi sedd ni wanagu mbott tubaarkàlla ndax émission bi dafa neex moom la ñëpp di xaar yàlla nañu yàlla fal cat yàlla may ñu dégg ak topp musuñu cat laa may may ñu yeggale suñu xel ak suñu sago yàlla musuñu ci pexe noonu seytaane yàqkat féewalekat jaxasakat yàlla nañ ci yàlla musal di souhaité sama xarit euh, daba corde daba loolu bu mouvement russi di la wax happy birthday to you enjoy enjoy your day ma copine ah, amal fa laay dund am fa laay wér happy bu baax di nuy tontoo jéeju électricien bu mag bi nga xam ne yaa tax courant ma sama ba tey ci sama oto je t'aime ñoo bokk leader dëgg la ay ca topp dem naa ba xamatuma man maay kan mënatuma dëpp xawma fi ma nekk mooy fan dañ dëpp lu ñëpp doon xaar Assane ak oustaz. masala masala gi ay ci Assane ñëwaat. Ah, am na solo xam naa oustaz ak Moodu moom beneen émission dinañ si ñëwaat ndax dañ ñoo wax ni Macky Sall bu njëkk boo ko gisee Macky Sall bu njëkk boo ko gisee te bu léegi nag boo ko gisee waxaguñu ci dara lu leer. il faut ñoom bu njëkk rek lañ wax ah, ni mu meloon bu njëkk ni mu meloon waaye léegi nag waxuñu ni mu xam naa dinañ ko si lislaam wax waaw waaw ba xam ah ñoom daa mel ni soppeeku waaw ni mu meloon ndax kii soppeeku kat guro léegi kon euh, dañuy ànd ji ak topp mu indi ñu masala ñu ñëw jàkkaar ak oustaz mu salaamaaleykum waa Baye Assane maa ngi lay nuyu di nuyu oustaz di nuyu soxna yëpp waa plateau bi bàyyiwuma kenn waaw mu fi mel ni amoon nañ fi ay laaj ki nga xam ni dafa am ñaari soxna ba ñett mu tëdd ba guddi soxna si xañ ko boppam te dara dalu ko ñuy laaj kooku ndax lislaam may na ko mu jël ay bagaasam dem ci beneen néegu jabaram wala lislaam mayu ko mu génn néeg boobu mu aaye loolu ñu ngi koy laaj Baye Assane du man nag man nekkuma senegal te nga sànni xeer ni est-ce que waa ji waxut boppam siyaar naa leen yéen ñëpp nag jaa ngeen jëf mi ngi noonu oustaz kii nee na ku am ñett am na ñetti soxna ñetti soxna léegi soxna si mu aaye defaru na ba ba ne ñum wan ko ko ba mu jàkkaaroo mu ne ko waaye doo si ñam est que mais est que am na droit kon génn demaat ci keneen oustaz man damaa déggagul sa question bi <laughs> sa question bi nga déggagul man dafa am ko am ñetti soxna wala dina ko am ñetti soxna waaw bi mu aaye dem na ca moom kooka defaroon na ba ne ñum wan ko ko ba mu gis ko ba xelam nekk ci mu ne ko tey doo ko mos kooka ne ko ndax kooka mën naa génn demaat ci ah, ah, demaat ci keneen asan te mënoo koo laal jabar ji da koo xañ boppam ci guddi gi te moom ñaari jabar la ñaari ñaari soxna la am asan ah, li léegi ndax am na droit bàyyi fi ki nga xam ne moo ko tere dem ci keneen waaw asan moo kii rek baax xam nga wolof yi léeru xam nga xam nga xam nga li am solo mooy Modou hmm. góor daal balaa dara hmm. booy takk ay soxna na fekk nga am maîtrise bi waaw ah, na fekk nga am maîtrise bu mën a gérer ay soxna mm-hmm. lu am solo ngoog attan leen physiquement psychologiquement yi war a daje moo moodu na daje ci mu leer la ni yow attan nga lii nga doot cee dugg da lay dimbali daf lay jàppale bu baax a baax a baax maanaam bu la ay nit mu dugal xuus ci kaay ñu may laa kaay ñu nii laa ba nga dugg ca boo ci duggee di nga gis gis nga takkum jabar am ay soxna moodu mi xam la dafa am yu ci nekk yu kenn mënta expliquer fii amoo ñaar amoo ñett bàyyasan mhm. mënoo comprendre li nekk ci biir néegu sëy mhm. déedéet ay bagage rek a ci ne yu yéeme yu doy waar biir néegu sëy am ñaari jabar am ñetti jabar di nga gis loo xam ni da nga daan dañ la ko da daan jàpp ne ay lépp la woon mhm. lu garaaw laa lay wax biir ay soxna da koy am xëy xëy xëy ñu takk la xala dootoo mën dara te say jabar ñoo la koy def. <laughs> très bien. leer na ñoom ñoom dañ koy dindi. dama ni la. dindi da ngay am soxna. am aawo jëm ca ñaareel ba. aawa bi dem ci sëriñ mu liggéeyloo ko loo xamante ni boo demee ci ñaaral bi da ngay sedd guy. ñaari mali doo ko fa mën. waaye eh. oustaz boo ñëwee nga xam ne moom moo. bàyyi ma oustaz ma la ci leneen xoolal a ngay da ngay aye sax da ngay aye. xaaral asan da ngay aye. yow boo buñ ayee ci yow. ngay xëpp deret ba bu wanee ginnaaw daraja taxaw bu ñëwee daraja jóg. waa kay am na. léegi xam nga lii baam bi wax nii. lii baam non li mu wax. attention baam bi li mu wax nii. baam bi li mu wax nii dafa am te loolu gars yi ñoo koy def. barke alxuraan télé la dañ lay xëpploo. <laughs> mënoo ci dara. Hmm. yooyu yëpp ci biir néegu sëy la yaawee. dama bëgg ñu xam ni biir néegu sëy am ay soxna. du ay caaxaan. bu nga gisee suñu borom limité ñu ci ñeent. yàlla xam na li mu def. dëgg la dis. fankihu maa taaba lakum mina nisaay. masnaa wa sulaasa wa rubaa. fa in xiftum allaa taxdilu fa waaxida. fa in xiftum ndem ragal ngeen ndem tàppat ngeen ni mënoon leen leen a yamale ndax ay problème hmm. yàlla nee yam leen ci benn lu waral loolu. mooy dafa am yu garaaw yoo xam ni. fi léegi takkoo ñaari jabar ñetti jabar ñeent. mënoo koo xam. billaahi amul kenn ku ko mën a expliquer. yooyu nag am ci biir néegu sëy. da ngay dem ci ñaareel bi tey jii aw bi jekku ci côté sëriñ moo tax góor a sonn. Mhm. Moodu moo tax góor a sonn. da ngay am ñaari jabar ku ci nekk di la waat naan la xawuma sëriñ musuma dem ci sëriñ ndoxuma ciy sëriñ fekk xol waaye yow da di didi mii bu amee mag bambi mii bu nekkee magu magu didi ngeen bokk ndey ak baay dina la seetaan ngay génn sa daal yaay bañ ñi doo dem ci sëriñ bambee lay wutali sëriñ bambi du xaritam ah. bambi du sama xarit Souleymane ba ma ne ko naa mun ma ndongo daara nga sama rakk jeeg ganee nañ ko damaa bëgg nga defal ma ci lii wala mais Assane du ma ko def dañuy waxtaan rek xanaa bu la fayee non fay amu ci. ko fayu sax. waxuma waxi fay dama lay bëgg wax ni balaa may tontu sa question. Mm. danger yi nekk ci biir néegu sëy il faut nangu ko. mais loolu dañ ko war a bàyyi. voilà loolu dañ ko war a bàyyi liggéeyante bi ñu war a bàyyi. feeboo boo dugg ci sëy fii ci Sénégal jëlal sa bopp nga wékk ko yàlla waaye na nga pere sa bopp de. dëgg la de si si dama ne bu beeboo kuy dugg ci sëy dénkal sa bopp sa borom. <laughs> waaye fii ci senegal réew mii bii réew. Mm. yow xanaa xamul lu doy waar. yow xeetu nopp yi xeetu nopp yi xajul fii. dëgg la de nopp yi ñuy def. Hmm. baax na nga jàpp ni kenn nopp la. Hmm? jàpp nga loolu. man non non mais mënoo ko xam. a noo. sa jabar mën na la ko bañ a def de. Hmm, samay mën nañoo yebal ci kër gi nit mu yendu ci fa. kéré ko loo xam ne doo ko xam sa jabar du ko xam. man moom léegi li ma lay tontu mooy directement góor gi am ñetti soxna. tëdd ba xaaju guddi aaw bi ni ko tey. ca ko dugg kaaf. mu lu ko naan ah waa kenn ki ci ñoom. ni ko tey ba mu ni ko naam. mu ni ko xorom day amul. xorom lan. xorom xorom togg. yaa may dégg. Mm-hmm. xorom day amul tey. bañal ko jëkkëram maanaam xorom amul mooy. mais est yi seetaan dañ xam ay xorom amul. waaw maanaam sa borom kër xaaral ma xàppale te loolu bëgg. xaaral ma xàppale sa kër. bu ko topp dalaa soxla. waaw kay la dama laa soxla bëgg a seq yow. Hmm. ngeen def rapport sexuel loolu nga wax. Hmm. sa borom kër rapport sexuel yi fi tubaab la de. ngeen ànd ngeen daje. ngeen sëy. Hmm. comme ni ñu ko xamee. yow ku jigéen ki nga lànk bañ. balaa dara balaa dara. charia am na lu mu wax ci yow Hmm. moom jigéen gi ah, mooy isa daa rajulu imraatu ila ila firaasi fa abat yonent bi nee na bépp góor waaw fa abat bi nee bépp góor bépp góor goo xam ne woo nga sa soxna ni ko dama laa soxla mu bañ xale bu jigéen bi lànk ah. bañ ah. yonent bi nee na boobu lal bi mu tëdd place bi mu tëdd mi ngi ko teg ci digg jëhannama Seydina Mohamed nee na guddi googu yonent bi am bokkul yonent bi neen diggante boobu law bi yéen ñaari ci tëddandoo mais sa jabar moom mi ngi ko teg ci digg dëxën na ma dee moo ko tee dem safara te su daanoo am na benn jaan boo xam ni moo jaan boo xam ni bépp xale bu jigéen buy bañal sa borom kër mu soxla la ci séq ak yow nga bañ jaan booboo lay wan moo lay wan ci biiram te jaan boobu biiram moo gën a tàng safara Seydina Mohamed moo ko wax du sama wax waa léegi ñu koy def di commercer seen jëkkër fu ñu jëm di commercer seen jëkkër di lànkal seen jëkkër léegi nag fi problème bi ne mooy ndax waa ji am na droit dem ci keneen dem ci yeneen ñaari soxna yi wala déet waaw bu baax foofu nag déglu la laaj mhm. sew sew bu rëy am la fa mu ñëwal bismillah bu fekkente ni xale bu jigéen bi moom soxna mhm. bañal na ko mhm. jox ko ndigal. Mhm. ni ko demoon fu la neex nga fanaan bi mhm. bu ko joxul ndigal nag. mais du ci man may leen ma ñëw sariya laa lay wax de. Mhm. moom mi bañ. jox na ko ndigal. ni ko demal fu la neex fanaani gi bañ gee tax mu jox ko ndigal quoi. déedéet mën na bañ am na jóge ñu pànk. dañu xam ne yow yow ñoom ñoom ñoom nga nopp. ñu lépp xam nañu li ngay ah, sentir ah, si ñoom la ah, ne. yaa ngi may dégg xam nañu yow li ngay wut nekkul ci ñam ñaar kenn yi yow ci moom mii la. yaay seytaane bi daal yaay seytaane bi jërëjëf Ah. mu ne la demal fu la neex libéré naa mm-hmm. la. am nga droit dem. am nga droit dem waaw. muy benn tànn ku la neex tànn ku la neex si ñoom. Mm-hmm. am nga droit dem nga wër ñaar ñëpp. muy benn deuxièmement bi ba Assane xam nga mooy lan. wër ñaar ñëpp ci guddi gi. waaw doo ma déglu Assane bàyyi Oustaz wax waaye. deuxièmement bi mooy circonstance dalaa dal mm-hmm. da ngaa ci ndaw si am yëg-yëg yoo xam ni xol Assane ak beer bi ñu mel ni bànn <laughs> moom laa ko sànq bëgg lii koy wàññi loolu rek bu yaa ngi mel ni bànn da koo bëgg ci xol bi asan ku doy waar ku doy waar circonstance bi loo xool ngi ni mukk mu xaalal di mel ni kosaak am naa ni bari seetaan ngi kosaak kosaak yi bari seetaan nel bi yow da am carence au contraire li nañ ko yaa ngi dégg bu fekkente ni yow ku góor ki leer nañu la yow boo sëyul ci guddi gi kenn mënu laa tee feebar feebar bi nag eggul ci dee waaw attention. genre Assane di jaral na sa yaram dina diis. te loolu daf sa naq metti sa naq metti hmm. problème yooyu na laa dal te loolu mën na laa jural tawat. Hmm. bàyyi fi soxna si nga xam ni moo la bañal. dem ànd ak sa kala neex ci ñoom ñaar. tànn ca kenn nga dem ci guddi ga. fanaan ak li wax nga ñëpp mais dama ni kenn nga cay tànn dem ci moom. dama ni kenn nga ciy tànn dem ci moom yaa ngi dégg. Hmm. beneen bi nga xam ne dafa jar a sóor te ñu bari koo ñoor koo xam charia du la may mukk nga dem fa nag hmm. day araam ci donte la ndaw si bañ na waaye ci ayam nga ne hmm. baam yaa ngi dégg donte benn fan la charia dalay naan ci donte la dafa bañ waaye bul fàtte ni moom ci ayam nga ne comme ci ayam nga ne charia dalay toogloo day araam ci yow nga daal di sàcc dem ah. moo tax yonent bi wax la ci xadis ba ni la man kaana loo imraataani képp koo xam da nga am ñaari soxna nga jeng jëm ci kenn ki hmm. yaati yowmal qiyaamati wa cheikhil ayman maa'il jeng eh, rek di dox doxu doxu ràpp waaye li ci dee waar ne taxul nga tàbbi sawara nag yaa ngi dégg waaw taxul nga tàbbi sawara hmm. waaye bàkkaar solu na ci sa kaw mbaa dégg ngeen masala bu baax mm-hmm. dégg bu baax a baax kon góor ñi nañuy def attention ci soxla yi nga xam ne dañoo diriger mm-hmm. conseil la mm-hmm. boo amee soxna su la diriger mu leer na da koo bëgg soo fay aye ji aye fa techniquement mais bu fa ayee giital sa xol comme ça yow charia dafa la wax tam benn côté ne la boo ayee ci beneen jabar nga jógee fa fàtte fa sa monta amoo droit duggaat ci néeg waa loolu <laughs> ci maande charia waaw charia dafa bëgg ko la dafa bëgg boo ayee nga xam gars yi dañuy sàcc ay sàcc ay dafa garaaw sàcc ay ñu koy def dafa bari sàcc yàlla ñu ci yàlla musal day bëgg yooyu yëpp ci xeetu maanute yabalal rek ku la ko jëlin mu ah, indil la ko ndax jigéen moo bari pexe am na solo li mu wax noonu si kii nee na fi nga tëdd foofu ba dee safara nga ñëm te jàndana la maj mm, kii ah. léegi foofu foofu nga tëdd noonu léegi ngir bañ gi nga bañ moom mu muñ tëdd bu subaa nga bëggalaat ko mbég mu raw moom après loola day continuer wala day day nga bëggalaat ko moom da koy tuub rek xale bu jigéen bu subaa mën na tuub jégalu borom bu subaa waa ji kontaan naa baal waaw jox na jëkkër ak lee day deñ lee bakkaar bu éternel day deñ amul kay li ma li ma jàng te Seydina Mohamed wax ko dama ko koy rek nee na jigéen ñaari ñaari biir laab hmm. alxabru wa zawju lil mar'ati sitraani hmm. alxabru mooy sa bàmmeel wa zawju ak sa boroom kër góorgóorlu ba sa boroom kër kontaan am na solo xale yu jigéen ñi hmm. góorgóorlu leen seen borom kër yi ndax ñu kontaan teen seen àjjana leer Abdou Top euh, deuxième élément beneen bi ñuy laaj ñaari way dencante yi kii ab jullit waaye kii dub jullit góor gi mooy ab julit waaye jigéen ji dub jullit ñuy laaj ci yan ci jan diine lañ ko ko war a may ñoom ñaar ñiy bëggante góor gi mooy ab waaye jigéen ji dub jullit ñuy laaj ci kan lañ ko ko war a may maanaam góor gi ci diineem lañ war a maye ndaw si wala ci diiney catholique bi lañ war a maye ndaw si wala ci diiney lislaam ci waaje oustaz dégg na laaj bi. waaw dégg naa laaj baax baax. Ah, ma lay laaj yow Didi. Baye Assane euh, bu la doon takk tey. Mhm. bu Baye Assane bu la doon takk Baye Assane mooy jullit bi yow yaay. chrétien bi chrétien bi yéefar bi. yaay eh. yéefar bi. yéefar wala bi rek jarul nga yéefar. Eh, daa gën a métti yéefar rek. waaw damay laaj rek xam nga question bi dafa am sens. ah yaay yéefar bi. te ñu war koo déglu Baye Assane eh, hmm? question bu am sens la. Hmm. ndax léegi Sénégal loolu dafay bari te dañoo war a xam ñun jullit lan lañu charia may charia def ñu may ñun góoru jullit ñi dañoo am droit takk chrétien ñun ah ñun góor ñi ñun charia may nañu loolu. ñu dem takki ñu dem takki ci ñoom waaw mais suñuy jigéen ñoom bambi ñii ak ñoom didi. waaw charia mayul chrétien bi mu ñëw takk leen. waaw kon daal ñun dañoo siis suñu bopp. ba tey noo ko tuddee baax na programme la bu ñu ah, yàlla la. programme yàlla la du suñu programme ñun. yàllaa dogalee noonu ah. léegi su boobaa jullit yow didi mhm. jullit nga waaw bu ñu lay maye dangaa sàkk ñu maye la feneen fu dul ci jàkka yi jumaa wala ci ëtt ba ah. ah wala boo tëb ba nekk sa merci beaucoup <laughs> kon sariya li mu bëgg mooy su demee ba mayee rek taxaw ci hmm. nañ ko mayee ca jàkkay jullit ña hmm. moom moom moom kii bi moom xale bi su mu koy mayee feneen ab jullit a ko takk di moom takk ko takku ko de moom takku ko de hmm. ku góor ki moo takk mais ku jigéen ki takku def nees xaw waaw dama lay wax rek léegi fi problème bi ne mooy sëy bi am na nu ñuy demee mu am am na ñu demee du am dafa am lu ñu tuddee euh, suratu siatul aqdi ak suratu siatul wujub mooy sëy kenn mënu koo def lu dul dafa am ay charte yu ci am bu dee suratul wujub bi la dañ lay laaj xale bu jigéen bi ndax set na wecc ndax ëmbul gaa yi may nañ fi jabar jigéen ju ëmb ba taay de ba xam nga loolu ah imaam yi may nañ fi jigéen ju ëmb ba taay ba ëmb ba taay yéen yéen ngeen maye ko jig ah mais loolu ju mën yéen imaam yi xam ngeen war ngeen a xool war ngeen ko mën a xoole waaw mais mais xamul woy ni man moom ooma ci kees bépp sëy bu may maye man hmm. Souleymane Diaw hmm. kenn mënta fexe ba ñii du yii du ma ko leeral dinaa laaj ndax xale bu jigéen bi ëmbul ngeen baal ma nii laa koy waxee. laaj rek nga mën ngeen baal ma war naa am test war nga am loo testé sa jaan nga yow da ngay wàcce tuuma sa kaw. dëgg la xale bu jigéen bi ndax ëmb na wala ëmb ndax nekkul ci buum ndax nekkul ci buum mhm. ñun la déedéet mhm. wala yuxtabu axadan ala xibbati aqi mhm. te loolu mi ngi te Sénégal di mii man dama koy nopp bëgg ko taxul bul bul tax nga foog dama naan nobu ma la damay ah, jàngale rek man dama ko nobul rek nobu ko nobu ki musóoru yaa ngi dégg oustaz daa ñemee na ku musóoru <laughs> ba ñu joxe guru siiwal ah. guru siiwal gi hmm. joxe nañ ko ci koñ bi ni Souleymane dugal na fi cinq cent mille waaw ba guru siiwal gi dem Baye Assane départ ci àll ba ñëw tegal ko deux millions gis nga wala ñu fi am na fi charia nee na deux millions yooyu ñu joxe mhm. araam na ci didi ah. wala yu tagguñ damay wax mi mais joxe nga sa kaddu kaddu gi jub na gula siiwal dem na charia ni la damay wax mi ngi ci risaala de gula siiwal ay koñ bi sama gula siiwal koñ bi grosseur la naaw koñ bi moo la bàyyi ma la suratul wu juub dañ ko war mm-hmm. de wala imaam war koo laaj mm-hmm. ndax amul ku dugal kàddoom ci bi mm. wala yuxta ma la wax ba ngi ci risaal moom la takk sagar yaa ngi kon amoo droit kon lekk xaalis waa ji mm-hmm. waaw parce que damay dégg suñu papa Ahmed Khalifa Niass mu ne soo dugalee sa xaalis ci Didi Mille ñu jàpp bés takk bi waa nga dem seeti ko tawte fa nga ne mën nga faa fanaan waaw waaw maanaam dam waaw non non dama la xaar Assane Assane damay laaj rek Assane laaj laaj parce que ah, takk bi <laughs> célébration la ah. maanaam li ko waxtaan bi koy jiitu ah. moo tax boo ñëwee imam mi te boo ñëwoon di takk jabar mu war ko xutba waaw am na moo wax da leen wax dem leen waxtaani waaw dama dama lay nettali waaw euh, daf ma daal man damaa takk soxna dem waalo yow mi waaw mais comme aada fi la joxe da nga maye damaa takk waaw takk pas yow nga takk sa bopp waaw mais bañ demee ba waalo li neex laa lay wax. comme xew-xew moo ñu fa yóbbu woon. sama yaay ni ma fexeel ba bul fa bul dem ci kër fexeel ba bul fa aar ak xale bi. ah dafa nga demoon waalo. <laughs> te kii baa nga fa di ko xaar. te fas nañ ba pare ah, dafa fanaan. est-ce que yaa ngi dégg sama yaay daf ma woo ba mu ñëw. <laughs> mu menacé ma Moodu harcelé ma te li sama yaay di wax lépp aada <laughs> waaw takk dara du naa ba pare. ba pare waaw dara du ci diine. mais sama yàlla mi ma te réew mi kenn mun ci dara. mun ma fa la tax na cause ba man xam naa ko. waaw dëgg la. est ki ngénte doomam. saabi jeex na jabaram te mu wóor ko ne doom ji juru ko. ba pare mu ngénte ko te xam na ne xel ni moom doom ji juru ko loolu ci sa réew. waaw xam nga da ngaa ngénte ci doom te mu leer na yow juru xam leer na ah. juru mais doom am na fu muy juddoo. Ah. ci biir buum sharia da la doon mhm. kenn leer na la mhm. nag point yoo xam ne a leeral euh, koy xaar ndax mhm. nag oustaz bu ñëwee rek andi leen ay leeral dëgg damay souhaiter joyeux anniversaire ki nga xam ne moo di bébé Bekaay sama bébé boobu nee naa la doom dundal euh, ki nga xam ne moo di doomu moo Gueye ak doomu Seynabou Diop joyeux anniversaire à toi yaa xam li nga bëgg sama doom yàlla na ko suñu borom euh, defal di nuyu sama tante tante Ndeye Faye depuis kel euh, série Malick Diop maa ngi koy ziar bu baax a baax tey nag bu ma yaanjee ki fi jaar rek mooy ki fi doon jaar aada aada ko waa moo génnaat fii ak man ci bopp bi ci kanam gi maa ngi koy nuyu bu baax waaye tamit di ko wax merci encore une fois da dem maquiller la sama rakk ji demal maa la ku ko bëgg def ku bëgg na mu defal yu baax yi da dem ci moom mu nga fële ca Ouest Foire après pharmacie moo daal bi koy woo ku 579 43 49 13 77 579 49 13 muy ku baax tubaar fakàlla macha allah di nuyu xalem yooyu nag nee naa boo demee dañ lay accueillir baax yaru ay xale ay xale lañ mais nangoo liggéey nag te seen patron baax dem fa dem fa mu sàjjal la wala nga yóbbu dam mu leen lu am jëm aada coiffure maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu waale Maymuna géey ak Khady Fall ak bébé Awa kooku mooy caatu salon bi di leen nuyu bu baax di leen ziar aw ma seen fay tey nag maa sañ sama bopp sama bopp laay gërëm ci sañsa bi mhm. ñoom Aram Badiane ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di nuyu waa Fatick gépp nag yaayu baa mi sama papa Moustapha Diouf sama yaay Mariam si sama nuyu bu baax a baax a baax euh, Oustaz sama doomu baay mhm. yàlla mm-hmm. yàlla kawel aljana ñi mm-hmm. si léema ndéem nuyu soxnaam muy Maama Gueye mm-hmm. di ko wax ni njaween gépp kontaan nañ ci moom yal na yàlla guddal fanam aar ko sàmm tubaar fakàlla macha allah ci gàmm gi voilà di leen souhaité bon gàmm aussi di di di di di di ziyaare sama sama umpaañ taalibe Baay Ñas boobu kenn ump leen Baay Ñas rek moo ne ci xel bi tubaar fakàlla macha allah ndaw bërëb ndukkumaan borom dikkite ki ma lay juróom-ñaari mbaam sëf la ren di ndax lan alali àdduna. dëgg la groupe la woon da doon agressé di sàcc di fàqat di def lu nekk. di. fóonante rek la yam amul leneen. mais fóonante dafa garaaw. bu garaawee nag ngeen ñu ngi miñ dong la. bëgg siiw du dem bàmmeel. ku may digal lu baax ma def la sama noon weddi li ma doon fa ma jóge woon gas def ci kàmb la ma bàyyi be léegi maa ngi nii xaw fu ma nekk nii dafa mel ni dama reer xaw lii la I need